moom mbir mi ak jëmm yàlla ma ko jaarale ci moom nga ràññeel leen ba yàlla bu yàlla jëmm jooju du jëmm jooju loolu la ñu tuddee ak taw mooy ber yàlla kon loolu mooy liggéeyu yonente yi seen liggéey mooy ñëw ngir xàjjaleen nit ñi yàlla mi yónnee ak kam yónni yàlla mi jaarale ci mbir mi ci loxol nit ak moom ma ko ci jaarale nga xam ne ki ñu ko jaarale ci loxoom ak ka ko ci jaarale loolu mooy rolu yonente ndax yàlla bi muy tudd yonente yi nekk nañu te sab noor ak xóot ak saalex ak luut ak suayb ñoom ñëpp ñoo bokk benn wax buñ wax muy inni lakum rasulun aminun fattaqullaha wa atiun ndaw laa lu yàlla yéene ci yéen ngir bëgg yéen ragal yàlla te topp ma kon cër boobu ci doomu aadama am ci mbir mi nga xam ne moom lañ yéen fokk moom ngay waxal mun la ragalal yàlla jaamul yàlla waaye nag jaamul yàlla te topp ma kon ba tey nit da ci amaatu cër ci mbir bi xajale bi nga xajal nag diggante cër bi nit ci am ak la ci wàllu yàlla loolu la ñuy tuddee tawhid suñu doon del ni yaa ayuha alladina amanu atiihu llaha wa atiihu rasula wa ulil amri minkum suñu borom moo digle yéen ñi gëm da ngeen topp yàlla da ngeen topp yonente bi ni ngeen topp kilifa yi yore seen i mbir waaye ba tey ràññeet li war a amaat foofu ci topp yàlla ban cadre lay doon ak topp yonente bi ci ban cadre lañ ko topp ak wulaatul umóor yi ñi nga xamante ne dañoo jël njàngalem yonente bi jàllale si ko ci yow fan nga war a yem ci topp li façon topp yooyu fokk nit ki xaajale ko tawxiid doog a mën a am mu dellu waxaat ci beneen aaya ni la tuminu li tuminu billahi wa rasulihi wa tuaziruhu wa tuwaqiruhu wa tusabbixuhu bukratan wa asila foofu ñetti damair am na fi fokk nit ki xaajale bamir bi ci ne fa mu jëm fa mu dellu lan moo ci cër bi yonente bi ak lan moo ci cër bi yàlla xaajale googu ba mu leer yàlla di yàlla yonte bi yonte bi tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu yonte bi ko wa tusabbihuhu bukratan wa asiilan loolu yàllaa ko xajale googu loolu mooy ak tawxiid comme xajale googu rek àqi yàlla ak àqi ku ñëw di la wan yàlla loolu mooy liggéey bi yonente yi daan liggéey moo tax mu yónni yonente yi ngir mu leer ci bopp nit ñi téere yi mu wàccee loolu yi moo tax mu wàccee ko ngir bëgg mu leer ci bopp nit ñi ngir bëgg leer la dul dëgg yi leer ñu xam ne kii wane ak la muy wane xam ne kii wane ak la muy wane yonent bi dafa ñëw ngir wan la nga xam moom lan mooy ak cëram nga xam ne la mu lay wan waaye gannaaw bu gannaaw bu yonent bi dem gannaaw bu yonente bi jàllee it ka ko jëlewaat ci yonente bi ñëw di la ko jot li mooy wulaatul umar yi nga xam ñoom itam seen cër xaajale googu rek laa jublu wax ni mooy dañuy tuddee tawhid ba dara du jaxasoo ak dara yonente bi yàlla jëkk yónni ngir mu régler ci problème boobu problème mu jaxaseeg doomaat mooy mu ràññeetle ko ba lenn lu ci lañ jox place bi ka ci jëkk mooy noox alayhi salaam noox dafa ñëw fekk nit ñi jaxase jaxase ka doon woote ak la mu leen doon woo jële doyloo ci leen di tegtal ba jéemu ñoo gis la mu leen doon tegtal ba noppi nag dëgër ca bopp dëgër ca bopp wala ci dëgër ca bopp ba mu mel ni dañu leen ko mooñaale ñu ko jaxase ak seeni deret loolu la ñuy jàng ci kisab Nuux bi muy woo ay nitam ci tawhid ci wéetal yàlla ñoom ñu dëgër bopp ne laa tazarunna wuddan bu leen bàyyi wudd wala suwaan wala yaxuusa wa yaxuuqa wa nasra seen aliha yi seen yàlla yi bu leen leen bàyyi loolu mooy ñu dëgër bopp rek ci li nekkoon ci sayu Buxaari yi dafay wax ni tur yooyu turi nit ñu baax lañu wax wuddu ak suwaa yaawuus yaawuq ak nasr dafay wax ne turi nit ñu baax lañu wax waaye bi ñu fi jógee seytaane moo moo ñëw déy déy seeni nit ni leen nañu wut seeni esthétique dañu wut lu mel ni seeni photo samp ko ci béréb yi ñu daan toog ñoom te tuddee ko seeni tur ñu def ko bañ ko defee tàmbali wuñu rek di leen jaamu ci saas dañoo kon ne ndax ñooñu lañ def leer na ci ñoom waaye dañoo dem ba ñooñu jógee ñeneen ñëw wóotu leen fa seytaane tàbbal ci seen xel ni leen ñii dañu leen fee tegoon ngir jaamu leen ñu tàmbali leen jaamu kon jaamu xel li ko indi ci kaw soo du rek luñ jekki-jekki bëgg lu baax ci lañ ko tegoon muy nit ñu baax ñu fi nekkoon ñu jël seeni esthétique teg leen ci ay béréb di leen xool ñooñ ñeneen fa tegoon jóge fa ñeneen ñëw jaawale ak jaawale moo fi indi jaamu xel ci kaw suuf ibnu jarir nett li ni ñëw ñii alquran tudd ci surat noox ay nit lañu woon ñu baax ci diggante aadama ak noox lañ ci nekkoon li amoon ne yëpp ñu leen toppoon di leen roy waaye bi ñu faatoo seen àndandoo yooyu daal di xalaat ne te ñu woon a def seeni portale ndax ñu gën noo mën a xiirtal ci ak jaamu yàlla loolu dañ ci doon buñ leen fàttalikoo ñu gën noo mën a xiirtal ci ak jaamu yàlla waaye ba ñu defee seeni portale bàyyi leen fa ñeneen dañoo ñëw iblis dugal ci seeni xel ni leen ñii seen bàyyi bi ñu koy portale bi ñu koy desee di ko fi teg nii dañu leen daan jaamu gannaaw yàlla taw bi ñu daan am ak wërsëg yi ci ñoom ñeen daan jaar moo tax ñooñu di ñaan ñooñu di sàkk ci ñoom ay xewal ba far jaamu xiram sax ci kaw suuf léegi nag noo bu ñëwee ngir di leeral ci loolu nag ñu dëgër ci bopp dëgër ci bopp ba kenn mu leen jël ma ni kon loolu benn la muy nit ku ñëw di la war yàlla nga jaawale koog yàlla moom lay war loolu benn la ci yi fi indi woon ay jafe-jafe ci adduna bi surtout jafe-jafe jaago xam mu def benn sabab suñ borom dafa def lu mu doon ci sabab la koy teg yéefar yii wedd yàlla la tax ñu weddi ko mooy sabab sabab mooy xërëm ba ñuy jàmm waaw sabab nit ki dem wut suuf su baax dem wut ay bil de serre dem dëjj ëkki dem wuti aw jiw la ca war ci poudre ak engrais lépp mu def ko ci ba nga xam ni bu bu lii masaan am rek fokk naa nga moo cee topp te mooy léppay baax yéefar bi wedd yàlla sabab boobu mooy ab xiramam bi mu jàpp moom ba tax mu bàyyi yàlla waaye suñu borom toujours jamono bu ne muy leeral nit ci bëgg mu xàmmee sabab bi ak ki nga xam ne mooy bind résultat bi dinaa boo defee sabab mu dinu xamal ni sabab dafa am fu mu yam foo xam ne mënu ko weesu ndax nit ci li mu fabee jiwu bi ba dugal ko ci biir suuf si rek jeexal na ci foofu la ma ne di xaar waaw kan moo xar xar jiw woowu doom saal boobu wala doomu gerte boobu kan moo ko xar génn ca njabat lu tooy njabat loolu génn ba bënn suuf si génn ci kan moo ko def yàlla ni leen kan moo def loolu yàlla inna allaha faaliqul habbi wan nawa ginnaaw boo fa bes doomu gerte ba dugal ko ci suuf si génn nga ci mënatoo ci dara waaye yàlla moo xar doom génnee ci njabat lu tooy yuxrijul hayya minal mayyit ba njabat loolu génn bët suuf si génn jamono bu ne nag tawhiid na loolu la suñu borom bi jàngal nit ñi ngir ñu bañ a jaawale ba ci sabab ñu bañ koo def mu doon ab xiram bu ñuy jaamu mu xamal la fa nga ca mën a yàq ñu la inna allaha faaliqul habbi wan nawa yuxrijul hayya minal mayyit wa muxrijul mayyita minal hayy zalikumullah kon jullit li ñu ko digal ngir tawxiit mën a leer mënta ñàkk sabab lu ngir dañu ko ko digal waaye nag na xam ne sabab lu képp lay def waaye lay tax sabab ba am résultat loola dogalub yàlla lay doon te la yàlla leeral na ko ci alxuraan leeral boo xam ne leeral lu xel la du ko nattale doo nattal leen bi nga fa ne doomu gerte bi ji ko ci suuf laxar doom ba génnee seen jabat lu tooy du yow dafa ci benn effort kon jullit mënta ñàkk sabab waaye nag bu sabab loo ba noppi it na xam ne lay sottal liy sotti yàlla la loolu mooy li alxuraan saxal loolu nag ab muxaddima la bu ma bëggoon ñu jiital ko ci tawxiid bañ xam dëgg dëgg fi ñu jëm ak lan la yonente yi daan jàngale ak Sëriñ Tuubaa lan la ñu jàngal ñu door a dugg la kon ci mafhumu tawxiid ci biir njàngaleem Sëriñ Tuubaa ak solo si mu am Sëriñ Tuubaa radiallahu anhu njàngalem tawxiitam la ci dëkk mooy daf koo teg ci keno yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tegoon njàngalem tawxiit yonente bi ci xadiisu Jibril boobu ñu nett li te Umar ibnu Alxataab radiallahu anhu nett li ko بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه حديث بوبو Omar ibnu Xataab moo ko nag li ñu di ko tudde xadisu Jibril muy wax ne dañoo toog si yonent bi benn bis am benn waay bu ñu tëll ñëw sol yëre yu weex tàll am kawar bu ñuul kukk gisuñu ci moom jeex yi ci tukki te kenn ci ñun xamu ko mel ni bi mu ñëwee rek am nañu tuuti ak jaaxle ndax mel na ni gan la ba nag mel ni it fa mu jóge soriwul bi mu ñëwee ba sukk ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laaj ko ni ko ah bir nii xanil islam islam da ko jëkk laaj lan mooy al islam yonte bi leeral ko ni ko mooy nga seere ni yàlla rek i buur tashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah di julli di woor di natt asaka aj mag mu ni ko lan mooy al iman mu ni ko al iman andil ko juróom benn ponk ni ko mooy al iman tumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil aaxir wa tu'mina bil qadari xayrihi wa sharrihi ma ne ci xadis Jibril boobu ci la sëñ bi sukkandiku te dem bi ñu tuddee tasawudu sigaar ba noppi nag détaillé ko kon njàngaleem tawxiid itam daf koy teg ci sunna xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam indi nag ay détail ay leeral sëñ bi ci am njàngaleem ci tawxiid danañ ci dégg ni tawxiid daf ko xaaj ñaari xaaj bii mu tudde ko tawxiidu takallum bii mu tudde ko tawxiidu taaruf bu njëkk boobu muy tawxiidu takallum mooy tawxiid bi nga xam ni nit ki daf koy jàng fas ko ci xolam wax ko ci aw làmmiñam mooy tawxiid bi nga xam ni da nga koy xam fas ko ci sa xol wax ko ci sa lan boobu mooy tawxiidu takallum bu ko defee mu làmboo lépp lu luy luy melaw mat wu wu wu suñ borom yelloo nga jox ko ko lépp luy melaw mànkite nga soril ko suñu borom tabaraka wa taala tawxiidu takallum mooy làmboo yooyu tawxiidu taaruf mooy tawxiid bi nga xam ni da nga koy dund yëg ko da nga koy dund yëg ko te mooy wéetal yàlla ci ak jaam wéetal ko ci ak cofeel wéetal ko ci ak sellal wéetal ko ci ragal ko wéetal ko ci yaakaar tawxiid boobu ñaari tawxiid yëpp nag dafay leere ci biir alquran dum ne maa lakum min ilahin xayru kooku tawxiidu takallum dugg na ndax lu ñuy xam la di ko fas waaye waa budullaha wala tusriku bihi shay'an mooy tawxiidu taaruf mooy tawxiid boo xam ne dañ koy dund yëg ko ñaari tawhid yooyu la sëriñ bi saxal saxal ci téeréem bi ñu tuddee masalikul jinaan moom la wax ni wa baadu fa tawxidu lil qismayni munqasimun fa saara tawxidayn fa awalun takallumun wa saani taarufun laa tunkiran bayaani tawxidu takallum boobu mooy bi mu saxal ci li li ëpp ci téere yi ma tuddoon muy sawudu sigaar ci buntub al iman ba mu koy détaillé ak tasawudu subbaan ak mawaahibul kuddus ba noppi nag mu gën a dolli détaillé foofu ci mawaahibul kuddus boobu tawhid boobu yi mu tudd ci téere yooyu moom la ñuy askanale abul hasan al ashari moom la ñuy tuddee tawhidul ashari te mooy saxalal yàlla melooy mat yépp suñu borom tabaraka wa taala bépp melow bu bu buy tekki kamaal mat rek meloo woon na ko moom yàlla tabaraka wa taala bépp meloo buy tekki ak mànkite rek sori na ko moom yàlla tabaraka wa taala waaye da di melo yooyu yépp nag ñaar fukki melo yii ñu tudd ci biir téere bi tuddee ko tawxiid ashar yi ñaar fukki melo yooyu ñooy ndey melo yooyu melo woo ca dàq rek day dugg si waat ci biir ñaar fukki moo tax ñu tënk mu tënk ko ci ñaar fukki melo te ñaar fukki melo yooyu li ci dafa sax ci alquran ci tegtal bu leer ak nag tegtali xel yu leer ñaar fukki melo yooyu mu séddale ko ñeenti cër ñeenti cër la séddale ñaar fukki melo yi mooy def ko as sifatu as sifatu nafsiya muy benn al sifaatu salbiya juróom lañ al sifaatul maani juróom-ñaar la al maanawiya al sifaatul maanawiya di juróom-ñaar bu ko defee ñaar fukki melo yi moom lañ xaajaat ñeenti xaaj yooyu moo tax day wax moom sëriñ bi ci biir ay bayaaneem ak yàlla ni allahumma inni muqirru laka fi hada al yawmi wa ba'dahu bil uluhiyati wa bil wahdaniyati وبالنفسية وببقية السلبية وبالمعاني والمعنوية وبالربوبية وبالأسماء الحسنى day saxalal yàlla al uluhiya gu mat sëkk ak waxdaaniya gu mat sëkk ak sifatu nafsiya ak sifaat ak al waxdaaniya ak salbi sifaatu salbiyaat yi ak sifaatul maani ak sifaatul manawiya bu ko defee ñeenti xaaj yooyu moo waxoon léegi te mooy as sifatu nafsiya mooy al wujudu al wujudu hiya sifatu nafsiya allati la yudraku al mawsuufu biduniha day def lu amut kenn mënu ko leer moo tax al wujudu mooy jiitu mu doon benn melo bu beru li ñu tuddee as sifatu salbiya juróom lañu muy alqidam lay jiite alqidam moom mooy li alquran wax ne huwa al awalu wal axir te awalu wal axir bi ko yonent bi bi ko yàlla bi ko yonent bi firi dafa wax ne allahuma anta al awalu fa laysa qablaka shay wa anta al axiru fa laysa baadaka shay sëriñ Tuubaa bi ñu firee al alqidamu dafa wax ni wa huwa qadimun maa lahu bidaay da ko cee da ko cee ñàmbal wa zu baqaain maa lahu nihaaya mu tolloo ak firi mi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam firi allahuma anta al awalu fa laysa qablaka shay wa anta al axiru fa laysa baadaka shay kon al wujud mooy asifaat nafsi sifaat salbiyaat yi juróom lañ mooy al qidam wal baqaau wal muxaalafa wal mooy jiitu di yàlla jiitu lépp dara jiituwoo ko def ji muy def ba mujj lépp dara du ko def du ko feeti ginnaaw ak wóotee bi mu wóotee ak mbindeef yi ci lépp ak doyloo gu mu doyloo boppam ak wéet gu mu wéet ci ay jëfam ak i meloom juróom yooyu mooy as sifaat as salbiya mooy alqidamu wal baqaau wal muxaalafa wal qiyaamu bi nafsi wal waxdaaniya ñetteel bi mooy ñetteelu xaaju ñaar fukk yooyu yëngu mu xaaj ñeenti xaaj ñetteelu xaaj bi mooy al maani maani buñ ko waxee mooy ay melo la yoo xam ne dafa sax ci jëmmi suñu borom al xudra kàttan ak iraada ak nameel xam-xam dund ak dégg ak gis ak wax ay melo lañ yoo xam ni saa bu ñu saxee dafa am lu ñuy tekki waat mooy saa bu ñu ne jëmm ji xudra mi ngi ci moom dafay tekki ni kon foofu wa qaadir saa bu ñu ne iraada mi ngi ci moom dafay daal di tekki ni fa huwa murid buñ ne ilmu sifatul ilm mi ngi ci moom day tekki ni fa huwa aalim kon juróom-ñaari melo yee muy maanawiyaat yi dañoo xaroo ci mahaali yi kon tawhid boobu muy al iman nga teqantale ko ci ñaar fukki melo yooyu ñu war a fas te buñ ko fasee melo yi ca def yépp duggaat ci biir boobu tawhid moom la Sëriñ Tuubaa gën a saxal ci téere yi bari loolu nag lu mu koy baamtu moom melo yooyu melo yooyu daf bari loolu mu koy baamtu ci biir xasida yi ndax am na xasida goo xam ne mi ngi ko tënkee min al lawhil mahfuz mi ngi ko tàmbalee ci min nii liman lahul wujudu wal qidam hamdun wa sukrun wa taqabbal al xidam nafaa dul baqaa'i wal muxaalafa al abda dal xadima la muxaalafa moom ngi xasida bi yéene goo xam ni sëriñ Mat Lamin Jóob daf ci ko ñett di ci Irwa un Nadim wax ni benn bés dañoo toog ci béréb bi ñu doon bindee nee na boobu maa ngi xalaat ci sama xel tontu lu may tontu ñaari malaayika yi ci bàmmeel ba xalaat boobu sax ma def ci aw bayit ci sama xel waaye génnewu ma bayit bayit bi ma ci xalaat ci sama xel mooy damaa xalaat ni layta shi'ri maada yakunu jawaabi in ataani fii turbatil malakaani damaa xalaat ci sama xel mi naan lu may tontu mun ko rek nga ba def ci aw bayit woo xam dama ko bàyyi ci sama xel mi ak ne kon ma xam bu ñaari malaayka yi ñëwee bu fekk ma ci sama bàmmeel lu ma leen tontu nee na ci biir boobu mi ngi taw am ku xuus ci taw bi ñëw taxaw ci bunt bi ni sëriñ bi dafa soxla kenn ci yéen nee na ki féete woon ci wetu bunt ba dem wujj ba mu demee sëriñ bi jox jox ko xasida gii mu tënkee neen la ma foofu te mooy tawxiid dajale na ko donte ñaar fukki melo la liñ soxla ci tawxiid lépp dafa daje ci biir loolu mu xam ne ko ni ko lii mooy tontu lu malaayka yi ci bam waaye nag bokk na ci li ma ta leeral bi mooy ne ndax juróom ñaari melo yee ñuy tudd tudde ko maani ak maanawiyaat yi ñu di ko tudd ci téere achara yi ndax day tekk ni lépp melo yàlla tuddal ci alquran dañ ko def nekk dañ ko nangu ndax ma day teg te ciwut loolu ndax bépp melo boo xam ne suñu borom saxal na ko ci alxuraan jële nañ ci imaam ngir moom yi muy abul xasan achaadali mu saxal ko mook al ashari yi mu saxal ko mook ñoom àndaloon ku mel ne al qaadi abu bakar ibn tayib al baqlaani ak ibn furik ak meneen mbooloo waaye ñi gën a not ñi gën a not ci ñoom dañoo saxal juróom ñaar yi capp yam ci mooy ku mel ni amul maali ku ñu tudde al juwe juwe lii lañ koy wax ak ñi dox ci ab tarixa waaye ñu xam ni sëriñ bi loolu yi daf koy naqar lu bari di ko tari ci bi di ko di ko indi ci biir xase yi di ko ci baamtu waaye sifaat yëpp yu suñu borom saxal ci alquran saxal na ko te dana koy waxee allahuma bi haqi wajhillahi taala al karim dafa bari lool lu mu koy wax moom sëriñ bi tabaraka wa taala moom sëriñ bi radiallahu anhu mu dellu ci biir am jàngaleem dafay bëbëstal waxe noo xam ni lépp day dugg ci biir ci yow mi koy jàng boo ko yëgee ak boo ko yëgee ndax day wax ne allahuma inni muqirrun laka bil kamaali wal jalaali waljamaali waltaxaddusi an kulli ma la yaliqu bika min al awsaaf mu mel ni loolu ibaara la boo xam ni bi mu ko xasee wax lépp lu ñu doon séntu ci meloy mat yi saxalaal na ko lépp lu ñu doon séntu ci soril yàlla melow mànkite soril na ko ko moom sëriñ bi waaye dana koy tafaa dana koy seqantal ci biir xasida yi lu bari nag ba tey ak doonte daf ko ijmaal foofu kon loolu mooy li ñuy wax ci tawxiidu takallum muy daal sëñ bi ci li muy tafsir al iman imanukum bi rabbikum tasdiqu bi annahu wujudu xaqin melo yim ko firee tafsile ko ko mooy melo yi nga xam ni moom la ñuy tuddee tawxid al ashari tawxid al ashari mu des tawxidu taaruf tawxidu taaruf mooy tawxid moo wax ni dañ koy dund yëg ko te bu ci na sax ci alquran ndax maa lakum min ilahin xayruhu ay wax la ñu war koo dégg fas ko wax ko ci aw làmmiñ foofu leer tawxidu taaruf mooy uxbudullaha wala tusriku bi shay'an bi lu alquran di faral di wax léegi boobu mooy tawxid bi nga xam ne dañ koy dund yëg ko te borom ba masaalikul jinaan tawxid boobu yi la ci jàngale tuddee ko tawxidul xawaas xusuus bële mu tuddee ko tawxidul aam aamatu naas wax na ni dee moom ñëpp mën nañ ko ndax wax ko ci saw làmmiñ ba ci mën ko fas ci sa xol sax waaye nag li jafe mooy jëf tawxid wax tawxid ak fas ko moo gën a yomb jëf ko moo tax mu tuddee bii xaas bële mu tuddee ko aam te mooy wéetal yàlla ci ak jaamu tàmbulee ko ca ba ngay sàkku xam-xam nga wéetal ca yàlla yàlla képp ku tax nga di ko sàkku téere bi sëriñ bi taalif ko ci benn muqaddima ak ñetti bunt Masaalikul Jinaan ab muqaddima la ko sëriñ bi defal ak ñetti bunt waaye muqaddima bi rek andi na ci lu mat juróom-ñeenti faslu dolli ci benn bunt boo xam ne tanbihaat wa tatimmaat la ko tudde ak xikma bu mu jëlee ci al bu mu iqtibaas ci zahab faslu bu njëkk bi sëriñ bi dëstee fañee jëkkante ak waxtu jëkkante ak waxtu bala moo laa raw ci la waxee ni wa argabul ashyaai lil amwaat raddun ila dunya ma alxayaati walaw suwayatan faqat liyamalu saalihatan tanfauhum in xafalu bu njëkk di kon sëriñ bi dañ ci soñee mooy jëkkante ak waxtu faslu ñaareel bi sëriñ bi jàngale ci ni ñuy dundale waxtu yi ginnaaw boo defee farata yi ba noppi nawaafil ya nga ci war a dolli ak zikar yaa nga ci war a dolli ngir dundale ko waxtu yi buntu faslu ñaareel bi ci misaal ci ci ci ci biir muqaddima Masaalikul Jinaan loolu ci jàngale faslu ñetteel bi mu jàngale ci koor ak i ngëneelam ak ya ca aju ak lañ ca soxla faslu ñeenteel bi mu jàngale ci werd ak la mu am ci njëriñ bu juróomeel bi zikar ak i njëriñam bu juróom-benneel bi xalaat fikra ak jeexit bi muy defal nit bu juróom-ñaareel bi mu jàngale ci sarxe ak la ca nekk ci ay yiw bu juróom-ñetteel bi jàng alquran ak la mu làmboo noonu la tërale muqaddima bi juróom-ñeenteel bi mu wax ci ci tasawuf ak wóote ya ca am ak ngëneel yam am ak nit ñi ni ñu ko umpalee ak ni ñu ko réere waaye gannaaw bi ñu defee muqaddima bi la def al baabul awal baabul awal bi da nga dem ba kër bi xaw a xaaj nga lu caa àgg ndax muqaddima bi li li mu ci jàngale daanaka bu ci yemoon sax mu doy mu def al baabul awal def ci ñetti faslu yoo xam ne li yàq tawxid te di jóge ci ñeenti noon yi ahlu tasawuf faral tudd muy seytaane bànneex ak bakkan ak adduna bu ci ne mu defal ko faslu faslu boppam ak it li ma waxoon ci muqaddima bi muy sukkandiku ci jëf ci ab xiram la bu ñu jàmm sukkandiku ci jëf mbaa sabab nga moytu ko mu moytu di ko loolu buntu ñaareel bi mu tudd ci yàqu-yàqu yi nga xam ni moom la alquran bi tuddee zahirul ismi zaro zahiral ismi wa batinahu bàkkaar yu yi yi nëbbu ak yi feeñ la ko alquran bi tuddee sëriñ bi fii moom la ko tuddee arradail alzahira wal batina arradail la ko tuddee alzahira wal batina radail yi yi ci feeñ mooy jikko yu yu yu bon yi gën a defarante muy diggante jëw ak rambaaj ak fen ak lekk alal yi jàmbur ci lu dul teyu bakkanam ak yu ne dem baatinul ismi te sëriñ bi tudde ko al razail al baatina wax ni sax moo gën a dansiyee muy diggante al kibru muy rëy ak al xasad ak al riya ay njëstal yu yëpp nii ay bàkkaar la yoo xam ni na nee toll toll nañ te nit ñi duñ ko bàyyi xel nit mën naa toog gis naan katu sàngara muy dal ci kawam lu ne wax ko mbaa muy wax njaalookat bi lu ne te fekk ne moom mi ngeeg bàkkaar bu gën a rëy boobu ni gum ak moom te nit ñi duñ ko xam muy rëy ak iñaan ak njësal ak yu ni dem sëriñ bi nag yooyu yëpp nag daf koy leeral ngir nit ki mën a wéetal yàlla ci ak jàmm tawxiid la boo xam ne dañ koy dund dañ misal ko dina façon ñetteel bi ci buntu boobu yi mu teqantal ci lenn ci bakkaar yooyu rasaay yooyu ak lenn ci ni ñu koy saafara loolu mooy ñetti fas lu yëm def ci buntu ñaareel bi ci misal ko dina buntu ñetteel bi mu jàngale ci ay teggin ak ci ngeneel teggin mu xaaj ko ñaari xaaj teggin yi dox sa digganteeg yàlla ak yi dox sa digganteeg jaam yàlla bii mu tudde ko teggin ni teggin yu fay mooy yi dox sa digganteeg nit ñi al adab zahir la ko tudde bi nga xam ne mooy dox sa digganteeg yàlla mu tudde ko al adab al batin waaye tudd na ci juróom-ñetti faslu faslu bu njëkk bi di cee soññee sàmmoonte ak waxtu bu ñaareel bi mu jàngale ci muñ bu ñetteel bi ci la jàngale ñaan faslu bu ñeenteel bi teggiini ñaan juróomeel bi waxtu yi ñuy wuyu ñaan juróom benneel bi mooy béréb yi ñuy wuyoo ak ñaan bi ci des mooy ña ñuy wuyu sunu ñaan daaneele ko sant yooyu yëpp kon ngir nit ki mën a am tawxiid boo xam daf koy yëg daf koy yëg daf koy dund yëg ko nga xam dootu doon wax kese kese kese kese na jël masaali ko jinaan tàmbalee ko ca bopp ba di ko bàyyee xel benn par benn benn par benn loolu moo leen may tawxiid boo xam ne da nga weesu ay wax waaye yëg yëg lay doon ci yow bu ko defee nag xam googu yi ak sóobu googu yi nag lan lay def ci nit ki day tax nit ki am dëgg dëgg tawxiid bi tax ñuy wax tawxiid tawxiid boobu nag moom la sëriñ bi tudd tawxiidul aarifiina billaahi maanaam mooy xam yàlla nga xam dañoo dund li ñuy wax dañoo dund yàlla yëg ko tawxiid bi bi ngay jëlee ci dund masaalikul jinaan tawxiid boobu la lay may moo tax mu ni ba muy wax meññetum laa ilaha illa allah dafa wax ne fa samaru tahlili tawxiidun sama lil aarifiina qaalahu man fahima man alima li anna tawxiida dawi takallumi xawaahu kullu muminin wa muslim mooy tawxid bee nga xam dañ koy wax ci lan xam ko sax ci am xel ba ci sax fas ko ci am xol julli bu ne nee yox waaye nag nga jëf tawxid ba yëg ko nag loolu dafa am ni ko yàlla jagleel waaye jéggeelu ko ñëpp kon solo si tawxid am ci biir njàngaleem sëñ bi loolu damay wax ne képp ku yër ku ne sutt mbindam rek loolu jëkk jot ci ci ay mbindam rek ba jàng ko rek doonte benn seconde nga ko xool sax da nga ci gisee itteel di ko tawxiid itteel moom sëriñ itteel jëm jox tawxiid da nga ko gis te loolu rek mën a nekk ndax moom moo tudd abdullahi wa xadimu rasulihi te tawxiid di li tax suñu borom bind nit ak jinne tawxiid boobu la wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun illa liya'budun mu dugg ci biir tawxid bi ñu ñu doon jàngale léegi mooy tawxid bi ñuy jëf yëg ko tawxid boobu moo tax suñu borom bind mbindeef yi moo tax mu yónni yonent yi moo tax mu wàccee téere tawxid ci la taxit nit ki aju ci la ak taxay dem aju nit ki lu mu mën a def ci ay njaaxum bu ànd ak tawxid suñu borom mën na ko jégal waaye nit ki boo xasee ñàkk tawxid bokkatul duñ ko dul limaale moo tax sëriñ bi jox ko itte ju kawe ci biir ay mbindam sëriñ bi bi muy wax maraati bi xam-xam yi tawxiid la def ca bopp ba wa afdalul ulumi bil itlaaqi tawxiidu rabbina ala ittifaaq xam-xam bi gën ci xam-xam yi xam-xam bi gën ci xam-xam yi mut la xam rek mooy wéetal yàlla te loolu ñëpp dëppoo nañ sëñ bi ci biir mu ndam tawxiid bi muy jox suñu borom ci ne lu ko neex rek kay am lu ko neex doom wa huwa alxakimu alladi ma shaa kaana wa ma lam yaku shaa'iyahu fa dahra yan'adim yàlla mooy ki xereñ ki nga xam ne lu ko neex day am waaye lu ko sóobut day ñàkk faaw wéetug wéetug yàlla ci biir ngën di Sëriñ Tuuba mu wax ni faman lahu jalla yanni sarmadan waladan musallisan fiihi xad zallat lahu lxadam yàlla képp ku ko def ñett baa nga askanale ko doom na nga xam ne tarxiis nga Sëriñ Tuuba wuute bi yàlla wuute ak mbindeef yi ak ni mu ko saxale ci biir mbindam allahu baatin qadimun laa yushaabihu ma bil baali yaxtu mooy lépp lu toq ci xel rek su borom nuru ko wa huwa al mufradu al alam sëriñ bi di dund na yonte yàlla Ibrahima dunde woon mooy wax ñi wedd yàlla ñu leen inna buraau minkum wa mimma taabuduna min dunillah sëriñ bi ni lahu tadarratu fiikum mubgidan lakum ma lam tatuubu lahu wallahu qad shahida mooy ku leen bañ laa di fekk ngeen di tuub dale ci yàlla bu di ko wax nasraan sëriñ bi ba ci góorub maa yomba nga xam ni nit ñoom dañuy jàpp ni jamaat la booy wax ak moom du ko dégg sëriñ bi waxee ak moom ci tax ni ko ayaa baxru waxit yow géej gi day yow bul bokk ci ñii boole yàlla ak dara da nga ko wéetal laa tusallis fa rabbuna taala ani taslis ndax suñu borom ëppante naag ñu di ko def ñetti matière yoo xam ne dañ naan bii ak bii ak bii ñetti ak sax naka la li nga xam ne moo gën a itteel nit ñi mooy sàkku njariñ ak moytu lor sëriñ bi njariñ ak lor mu tënk ko ci yàlla ni boo bu fekkee da ngay daw lor na nga wéeru ci yàlla booy sàkku njariñ dawal nga sàkkoo ji ko ca yàlla wax ni man vanna xayra allah yuxni aw yadur fadaaka fi daarayni zu kaddi wadur ku jàpp ne ku dul yàlla dana jariñe baa muy lore de kooku nar naa sonn nar naa loru ci àddina ak alaxira an nafu wa dur min arrahman laysa min al bidaani wa sudaan njëriñ ak lor ci yàlla lay bàyyi ko waaye jógewul Afrique gi jógewul it Europe bàyyi kowul Europe bàyyi kowul Afrique an nafu wa dur min arrahmani laysa min al bidaani wa sudaan daan ni an nafu wa dur min al jabbaari min al wahaabi laysa min al aadaai wal ahbaab njëriñ ak lor ci yàlla lay bàyyi ko waaye jullit yëpp buñ taktoon bëgg la ko may du sotti yéefar yëpp buñ taktoon bëgg la ko xañ du sotti bëgg laa may njëriñ mbaa ñu bëgg laa lor yi du sotti kon yàlla rek day bañ nit ki di wéeru ci ay soppe mbaa muy wéeru ci ay mbaa muy ragal ay noonu ndax njëriñ ak lor ci yàlla lay bàyyi ko waaye jógewul ci ab noon jógewul ci ab soppe addur wa nafu min al jabbaari laysa min al abraari wal fujaari njëriñ ak lor ci yàlla lay bàyyi ko waaye bàyyi ko wuñ ci nit ñu baax ñi bàyyi ko wuñ ci ay bandi lor du bàyyi ko ci bandi njëriñ bàyyi ko wuñ ci nit ku baax waaye lépp ci yàlla lay bàyyi ko naka noonu sëñ bi di dund nangu dogalub yàlla nga xam ni nu yàlla dogal dégg naa mag ñi dañ daan wax sëriñ bi daan wax bu leen jàpp mukk ne damay def lu ma bëgg sama borom defal ma ko dadi lu mu dogal rek neex na ma dadi lu mu dogal rek neex na ma te loolu moom la wax moom la firndeel ci bayitam yi yaa rabbi in aataytani fa shukru wa in manaata fa ridan wa sabro ba ma joxee ma sant la waaye boo gàntalee ma nangu dogal boobu te muñ ko fal manahu wala xafaaw xafaan minka dellu ni léegi jox ak ngant lépp ci yow lay bàyyi ko waaye bàyyi ko feneen fële ci yow dellu sax ni ko ma ñaan la nga gàntu sax moo ma gënal rafetal gu bàyyi ko ci nit mbaam bàyyi ko ci jinne mbaam bàyyi ko ci malaayka manahu ka afdalu min al ihsaani min malakin aw jinnin aw insaan li kaw ni man ay ka huwa al xataaya ngir su ma la ñaan la nga gàntu gàntu googu ak may lay fekk ngir yëg gi nga ma yëg ba di ma gàntu fekk ak ak ak may la waaye nag waa kaw ni ihsaanil bariyati xijaab rafetalu mbindeef dafay indi kiiraay diggante ci lay may ak ki ñuy may day dox si diggante yàlla ndax nit ki bu la defalee lu baax defalati ko defalati la ko mën naa am bu ëllëgee boo soxlaa saxel daj ko te loolu la sëriñ bi bay moo tax mu ne ma ñaan la nga gàntal ma sax moo ma gënal rafetal gu ma nit defal mbaa malaayika defal ma ko mbaa jinne defal ma ko ba nga koy tënk dañuy wax ni bépp xasida ci xasida si boo seetlee benn mu mu amee maanaam laa ilaha illallahu muhammadun rasulullah wala mu def xasida gépp mu amee maanaam laa ilaha illallah mu wutal ko mbokk mu mu ko bokkaleel def ko mu amee maanaam muhammadun rasulullah comme ni mu nekk ci xasida gi ma doon tudd léegi gim tënk mi ne laa mahfuz boo ko xoolee ba mu jeex maanaam laa ilaha illallahu lay amee waaye mu am geneen xasida gu mu ko seexaleel tuddee ko tënkee ko min allahi bi iznihi lii xasida googu maanaam muhammadun rasulullahi la amee mi ngi tàmbalee ci muhammadun salla alayhi allahu musalliman lana badat ulaahu kon bu fekkee ni dañuy gàttal ci noonu dañuy wax ni loolu mooy li tënk tawxid bi mu sëriñ bi jàngal muy tawxidu takallum ak tawxidu taaruf tawxidu takallum ma wax ni ñu ngi ko sukkandikoo ci baabul iman bi yonent sans waxoon bi mu koy tafsir la indi ñaar fukki melo yoo xam ne ñooy ndey mbooleem melo yi nga xamante ni suñu borom tuyaat na ko ci alquran loolu kon mooy tawxid bi mu jàngal ci tawxidu takallum tawxidu taaruf mooy masaalikul jinaan te mooy tawxid bi nga xam ni nit ki daf koy dund ba yëg tawxid loolu yi mooy njàngale bi biir lu nit gën a xóot ci ay mbindam gën a xóot ci gëstu xasida yi nag loolu yi di gën di yokk di gën a leer ci moom ñuy ñaan yàlla mu defal na ak dégg ak topp ak jariñu di ñaan yàlla mu defal na tawfiq nangu lañ suñuy jëf asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu
waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Bachir li nu ko waxe woon ci tàmbali bi rek li nu xamoon ci waxtaanam mooy lii wax ju leer te wér wér gi moom mooy li mu wax lu mu wax lu ne alxuraan lay doon wala sunna wala waxi sëñ bi kon mooy kon lu mu wax lu ne lu wér lay doon leeralal nanu ne wéetal yàlla mooy li tax a jóg yonente yi yonente yi loolu mooy seen yitte ñëw ngir xamal nit ñi nu ñuy wéetale yàlla ñu teg yàlla fuñ dul teg leneen yàlla mooy moo sàkk bindeef yi mooy jëfandiku ci ñoom waaye nag li muy doxale ci diggante bi lenn wala kenn wala ñenn day tax ba nit ñi ràññale gi di jafe ci ñoom yonente yi nag ñëw ngir nit ñi mën a xàmmee yàlla miy def ak ñi mu fiy jaarale muy sabab yi nga xam ne ay sabab la rek waaye yàlla nag mooy sottal jaawale gi am nag jaawale sabab bi ak kiy sottal loolu la yonente yi di saafara si di ko leer la nit ñi nga xam ne noonu la tënke ne kon mooy tawxiid dëgg-dëgg tawxiid kon mooy rek ñu xàmmee yàlla miy sottal bañ koo jaawaleeg ñi muy jaarale li muy sottal te mooy bindeef bindeef yëpp rek ndax yàlla lu muy def da koy jaarale ci sabab nit ñi nag seen ñàkk ràññale dana àgg ci ñu ñu fàtte yàlla may def jàpp ci sabab bi jàpp ne mooy def loolu kon mën a yonente yi seen liggéey yëpp mooy leeral loolu tawxiid boobu itam bi yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dikkee mooy lépp diine yàlla bu ne bindiwuma jinne yi ak nit ñi lu dul ngir ñu jaamu ma jaamu googee mooy wéetal ko rek ba tey am na sax ñu ko firee noonu ci mufassiroon yi illaa li yaabuduun ñu ne illaa li yuwaxiduuni mooy ñu wéetal ma rek buñ ko firee noonu ak buñ ko firee noonu yëpp itam fa lay mujj fa lay mujje buñ déggee ni mu leerale ne wéetal yàlla sëñ bu mag bi moom ni mu ko jàngalee da ko wane ci ñaari anam da ko xaaj ñaari xaaj wéetal goo xam ne ci làmmiñ lañ koy defe ak ci ak ngëm mooy ci sa làmmiñ nga wéetal ci yàlla jàpp ko ci sa xol itam boobu mooy bi ñépp bokk képp kuy ab jullit rek loola war naa ne ci moom kum nekkul ci moom sax dëgg-dëgg duñ mën a jàppee ko ne ab jullit la ku gëmagut ci xolam ne yàlla kenn la wax ko ci làmmiñam itam ashhadu an laa ilaha illa allah ku defagut loolu deesul mën a jàpp ne ab jullit la kon jullit ñëpp ñoom ñoo maase ci wéetal yàlla googu noonu la ko leerale te sëñ bi itam leeral ko ci téeréem yu bari téere xam-xam yi ñuy jàngale yi cay wax ci tawxiid tawxiid boobee la cay andi te mooy wéetal yàlla ci pas-pas ak ci làmmiñ geneen bi tamit bu am solo moom it mooy wéetal ko nag ci jëf ci sa jëf ci li ngay dunde mooy dund kon dund wéetal yàlla googu te loolu masaalikul jinaan ci la ko sëñ bi leerale nga xam ne nit ki lu yem rek ci fas ci xolam wéetal yàlla ak di ko tudd ci làmmiñam waaye da koy dund nag ci ay cërëm loolu nag ñëpp àgguñ ci wala ñëpp duñ jóg àgg ci ku cay àgg it day dem ba àgg ca waaye ñëpp àgguñ ci ñi ci àgg itam jóguñ rek àgg ci te dëgg-dëgg nag loola mooy jublu gi dëgg-dëgg liñ jublu dëgg mooy nit ki àgg foofu àgg ci dund wéetal yàlla ci ay cërëm ci ay jëfam la muy def ak la muy bàyyi lépp dugg ci biir loolu kon mel na ne sëriñ Basiru kon leeral na lool lu aju woon ci tomb biñ biñ bëggoon mu waxtaan ci mu wane ne sëñ bi itam mbindam mépp daanaka xasidaam doo jël genn xasidaam boo xam ne boo ko settantale bu baax doo ko fekk mu aju ci wéetal yàlla xasida boo jël rek boo ko settantale da nga xam ne wéetal yàlla lay dëgëral lay wone lay fësal benn mu boole ñaari ñaari wàll yi am ci seede muy seede na yàlla rek mooy yayoo jaamu muhammad tam mooy ab yonentam shahadatu an laa ilaaha illallaah wa anna muhammadan rasulullaah wala boog mu jëm ci wéetal yàlla am beneen bu mu ko lëkkaleel boo xam ne day wax ci yonente bi sallam waaye kon kon daal xasida gune nee na ku ko settantal dana fekk ne ci wéetal yàlla lay wax tudd na fi junj rek la mooy junj na fi rek ay bayit yu bari yoo xam ne lu ci ne ci wéetal yàlla lay wax ngir rek misaal joxe misaal ci li mu wax ne xasida goo jël boo ko settantalee da nga xam ne ci wéetal yàlla rek lay wax lii daal mënees naa wax ne mooy li sëñ Basiru tënke wàllu wéetal yàlla ni mu amee solo ci njàngaleem sëñ bi ak it li muy firi dëgg-dëgg li muy firi moom mooy ñaari wàll yooyu mu wax jàpp ci sa xol wax ci saw làmmiñ ne yàlla bokkut ak lenn bokkut ak lenn ci jëmmam bokkut ak lenn ci ay jëfam bokkut ak lenn ci ay meloom dund loolu itam nag dund ko mooy sag dund loolu fenc sag dund loolu fenc ngay wóolu yàlla rek di yaakaar yàlla rek di ragal yàlla rek looy bëgg ci njariñ nga di ko sàkkoo ci yàlla rek looy bëgg a mucc itam ci lor nga sàkkoo mucc nga sàkku mucc ga nga sàkkoo ko ci yàlla rek loolu la wax ne mooy tawxiid kon ni ko sëriñ Cheikh wax woon ci tàmbali bi ne woon na danañ jagleel xëy na diir bu gàtt ay ñaari laaj ak ñett bu ko sëñ bi tontoo ñu door a jàll ci li topp ci jotaay bi
sunu sang su baax si di cheikh Bachiru Mbakke cheikh Abdul Karim ak sëriñ Cheikhuna Mbakke cheikh Abdul Wudóot yaakaar naa ardu bi ngeen ñu defal ci tawxiid exposé bi ngeen ñu defal ci tawxiid egg na ci mbokki taalibe ñëpp a ngi ni teg kon mel na ni waxtaan wi ak seen te dugg na li ma ci gën a frappé man mooy ni ko sëñ bi waxe ni ko sëriñ Bachir waxe ni sëñ Touba ba muy joxe programme mu jàngaleem dafa jël tawxid mu nekk ci bopp sabtadal muridu bi tawxidi wal fiqhi wa tasawufi al majid muntahijan masaba ahli sunna ma al jamaati naja min fitna doora andi nag alaat yi nga xam ne nii moo ñuy dimbali ci tawxid boobu ak dégg xadis sayidna muhammad ak aay yi nga xam ne nii mu wàcc alquran wa baadaha la budda min alaati lil baxti fi lxadisi wal ayat ka naxwi wal arudi wal bayaani wa luxati al arabi wal maani li mooy programme bu jàngu sëñ Tuba kon sëriñ bi lu ñu doon séentu ci jotaay bi am nañ ci lu ko raw li lay xamal ne tawxiid lu jafe la Maodo buñ masaa dugg bala ñoo ak si fii danaa yor ab fëkk ci ay laaj waaye su ne di ñaa ngi tekk mu lay xamal ne lii luñ war di waxtaane ci heure bu nekk la ndax da cee bari ñoo xam ne ñoo mën a ci yem loolu rek doy na tegtal bi tekk ji mbooloo mi def rek moo lay xamal ne lii mawdon bi bu am solo la te itam nit ñi aajowoo nañ te it képp ku di taalibe Sëriñ Tuubaa boo xamul tawxiid yow li ngay woote ci Sëriñ Tuubaa dafay mel ni xamoo ko ndax sëriñ bi tawxiid rek moo doonoon léppam bëgg yàlla kese doolu wu ca leneen dégg nga ne ko sëñ bi waxee yàlla boo may may ma di la sant waaye boo ma xàññee du ma la sant dama lay gërëm sax far baatu alhamdulilah jub la la teg foofu ne ko ma dolli ci nag muñ kon waxtaan wi am na solo trop nuy sargal sunu gan ñu baax ñi nga xam ne ñoo fi teew xam ngeen ne bis bi jotaay bi dañu ko terale sëriñ Touba Cheikh Saalihu Mbacke ibnu Cheikh Ahmadul Xadim xam naa xolam sedd na ci lool ndax bëgg gu mu bëggoon yàlla wéetal ko topp gu mu toppoon ci baayam bu baax bi sëriñ Touba di ko roy waaye ku xam sëñ Saalihu xam bëgg gi nga xam ne ni bëggan na ko sëriñ Basiiru tey fii ci barab bii bu njabootu sëriñ Basiiru amee jotaay bu lislaam ngir wéetal yàlla defale ko sëñ Saliou kenn ku ne xam ne ne sëñ Saliou tey joxalam sedd na kenn ci mag ñi ñi ko jege woon nee na ma sëñ Saliou dafa bëggan sëñ Basiiru ba nun ñi ko jege woon saa yu nu masaa bëgg lu ko neex dañuy bu ñëwee dañ ko naan ya yow de sëñ bi dañ laa jaawale sëñ Basiiru xolam sedd kon jotaay bii tey sëriñ Saliou bég na ci waaye sëriñ Basiiru bég na ci moo tax ba sëriñ Jiili Mbàkke mu sëriñ Touba Cheikh Saliou moo ñëw teewal boppam ci jotaay bi toogal fi magam yu baax yi di sëriñ Cheikh Mbacke mu sëriñ Saliou ak sëriñ Moustapha mu sëriñ Saliou ak mboolem njabootu sëriñ Saliou ak soxna waalo soxna moominatu seeni njaboot a ngi fi danaa ñëw ci seeni tur léegi loo tax sëñ jili bi mu ñëwee mu ànd ak njabootu boppam muy sëriñ Mamor Kebe moom soxna waalo moom sëriñ Saaliw ak sëriñ Xalil Mbàkke moom soxna Moomi Mbàkke moom sëriñ Saaliw ak sëriñ Xaadim Mbàkke moom soxna Moomi mu sëriñ Saaliw ak sëriñ Abo Kebe moom soxna waalo moom sëriñ Saaliw ak sëriñ Saaliwu Mbàkke moom Serigne Moustapha Mbacke moom Serigne Salim ak mboolem taalib yi ñu àndal ak famille bi kon ñoom it jotaay bi neex na leen lool teew nañ teewaay bu rafet su ko defee fekk si nañ ci itam lenn ci taalibe yi ak njabootu kër Serigne Bassirou waaye bala ma ciy egg ma présenté leen sunu gan gu tedd gu fi ñëw di mbokk lislaam dong ñor ko te ku dégg turam lislaam a tax nga dégg ko kooku mooy al mursid ahmadu ayaan caam waaw sunu mbokk la nun ñi sant jaxate nun xam nañ ne sëñ ayaan mi sunu mbokk la di rafetlu bu baax teewaayam diine ñor ko sëriñ tubaa ak waa kër sëriñ tubaa ñor ko te loolu mu daan ko dox ci ñi ci jiitu woon sëñ saaliw waaye mu feddali ko loolu fësal ko ci sëñ saaliw ba mu leer feddali ko ci seex Mahamadou Lamine Baara feddali ko itam ci seex Sidil Muxtaar mii teew te kenn du wax digganteem ak sëñ Muntaxa loolu waral teewaayam bii moom la ñuy def sax mooy bu ma waxee tur yi ñi ba noppi comme programme bi des na sëriñ Xalil dana wax ci turu njabootu sëriñ Saaliw waaye sëriñ Cheikhul Xadim mu sëriñ Muntaxa dana wax moom itam ci turu académie bi waaye bu ma jottalee turu kilifa yi ba noppi li may def rek mooy ku ne xam na ne ku mel ni alaaji Eyaan ku xataxat la jotaay bii mënu sédde ci boppam duñ def dara lu dul moom itam jox ko nag mu sànni ci ay kàddu su ko defee bu bëggee dem ñu yewi ko ndax fa mu jógee sori na su ko defee nu des eggale li nga xam ne nii moo des ci programme bi kon sëriñ Cheikh Mbacke muy sëriñ Cheikhul Khadim mu sëriñ Muntaxa teew na ci barab bi sëriñ Muntaxa Mbacke moom sëriñ Mamor mi ngi nii waaye nag sëriñ Moustapha sëriñ Bassirou Mbacke moom sëriñ Moustapha Bassirou ci tiit di président conseil rural ba teew na naka noona sëriñ ma Samba Mbacke moom sëriñ Moustapha Bassirou mi ngi ci jotaay bi Cheikh Mouhamadou Abdoulahi Mbacke moom sëriñ Cheikh Astofal mu sëriñ Bassirou mi ngi ci jotaay bi sëriñ Cheikh Ibra moom sëriñ Moustapha mu Cheikh Mouhamadou Bassir mi ngi ci jotaay bi sëriñ Muntaxa Mbàkke moom sëriñ Fàllu Mbàkke moom sëriñ Basiiru mi ngi ci jotaay bi waaye sëriñ Moustapha Mbàkke di jàngalekat bi nga xam ne moom moo sax ci jumaa ji di fi jàngale fiq di fi jàngale lislaam ak tawhid ni ñu ko waxee moom itam mi ngi ci jotaay bi sëriñ Abdoulahat Mbàkke moom sëriñ Cheikh Mbàkke moom sëriñ Moustapha Basiiru moom itam mi ngi ci jotaay bi naka noona sëriñ Baara Gueye sëriñ Babacar Mbeng imam sëriñ Murtada Diop jóge ci institut islam bu sëriñ Cheikh Gaynde Fatma moom itam mi ngi nii toog sëriñ Cheikh Ndiaye Xatar mu sëriñ Mbay Fallou Ndiaye jiite moom itam CM bi nga xam ne mooy franco arabe officiel bi fi bi fi état bi teg mooy directeur bi moom itam mi ngi ci jotaay bi naka noona sëriñ Jili Mbàkke duma leen ko présenté itam sëriñ Muntaxa Jatara di inspecteur enseignement langue arabe mu bàyyi sëriñ Jatara mi ngi nii ci sama wet bëgg naa bu ko waxtu wi mayee moom itam ma jox ko mu sànni ay kàddu ginnaaw bu sëriñ ayaan paree def commentaire tuuti ci waxtaan wi nga xam ne sëriñ Bassirou waxtaan na ko fi naka noona sëriñ Assane Diop imam moom itam mi ngi ci jotaay bi ak mbooloo mu bare ak mbokki taalibe ak waa kër gi ñëpp ñu ngi fi kon nag ñu ngi dellu di sant ñëpp di leen gërëm kon nag duñ def dara lu lut kàddu gi nu jébbal ko sunu mag ju baax ji sunu mag ju baax ji di sunu kilifa ci waar wi nuy dem muy sëriñ Ayaan Caam sëriñ Ayaan nag yaa ngi fekkoon Maodo am bi nga xam ne ci lañ doon waxtaane tey mooy rek tawxiid lan mooy tawxiid ak tawxiid ci taxliimu Cheikh Ahmadul Xadim jërëjëf tafaddal maskuura
bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu wa sallama ala xayri bani lbashar sayidina wa maulana wa xabibina muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahabatihi ajmain parce que yàlla mooy def lu ko neex defal ko ku ko neex ca waxtu ba mu ko neexee même su ko borom même su ko kañ ko defal su ko waajur fàgguluwu ko yàlla mooy defal ku ko neex la ko neex ca waxtu ba mu ko neexee wax dëgg yàlla jékkeewuma woon ne tey jii ci waxtu wii dinaa ronu néegu yàlla bu tedd bii te ko ko sabablu bokk ci jaami yàlla yi nga xam ne yéen a ma nga xam ne yéen a ma gën a xam ne yàlla may na leen ki ko sabablu bokk ci jaami yàlla yi nga xam ne yéen a ma gën a xam ne yàlla may na leen est-ce que Sëriñ Bachir waaye est-ce que doomam yu tedd yi Moustapha Bachir Muntaka Abdul Hakim yàlla na bur yàlla yërëm ko ak mbooleem mi ci des maa ngi leen di gërëm lool yàlla li muy wàcc di wax ak nit ñi bariwul su fekkee ne am na xam xanaa Moussa te fekkewu waaye waxtu wu ne nag yàlla wax ak nun ci li muy def ci suñu kanam nu koy fekke waxtu wu ne yàlla wax ci ak nun man li ma yàlla wax tey ci jotaay bii mooy moo di ne aha yaa yaa gis suma jaam yu baax yii ak fi ñu nekk ci suma néeg ak li ñu fi nekkee di wax nu may wéetalee man ci suma kenn ci suma jataay yaa gis lii fexeel nag ba buñ la yabati ci diine lii la ma yàlla wax fexeel nag ba buñ la yabati ci diine ñii ngay gis ma fekk leen fii ci néeg bii te nga xam ne gëm naa ne ustisa ala taqwa néeg bii kon rëy na lool waaye su ma yéey na li ñuy wax yéey na niyatul mumini ablagu min amalihi xëy na loolu la sëriñ Sidi Maxtaar moo ma ne woon naa ñëw julli si àjjuma ma def ko ak moom ma jóge fa mu ne ma nañ ànd ak kër gi ma dem bu ma fa demee ma ne ko fi mu ne moom damaa bëgg soo ma yeewee rek ma jaari ca kër Serigne Bachiro xaadimul Moustapha ndax am na ko fa nelaw tafaraka la ma ma ma ñaanal leen léegi léegi laa ko xam naa li may wax ma ngi koy dégg mu ne ma xaar suma rakka Muntaqa moomee suma rakk la ko ju baax la mu teg ci mu teg ci Ahmed Badawi moo ko Ahmed Badawi ku baax la moom suñu Sidi Maxtaar léegi dama ko doon wax mu delloo ma jaar ci suñu Abdou Hakim mu jóge fa ñëw fekk fi fe fekk leen ci li ma leen fekk muy tawxiid nekk di ko waxee nag ci jumaa ji ji nga xam ne ussisa ala taqwa bés bi nag ngeen jagleel ko ki nga xam ne mu ngi bokk ci xiirat xiirat ibadillah mu ngi bokk ci ñi gën ci jàmm yàlla yi sëñ Saalax Mbàkke nit ku ne la nga am ngay ngay tiituroo man xam nga lam ma defalam sëñ Saalax lii lépp yàlla la man di may ñëw lii lépp xaw ma ko woon sëñ Saalax ñëw naa at ñu ñu sëñ Abdul Qadir ne rawee ma ñaanal ko ma ne ko bëgg naa fee ñëw de mu ne ñëwal am fi ñetti fan ma ñëw bi ma ñëwee am fi si ñetti fan di fa am ñetti fan mu woo Serigne Cheikh doomam bii tey xalifaam bii tey mu woo ko mu ñëw magu ji li ñu fi ne mu woo ko mu ñëw mu ne ko damaa bëgg añ bi ak reer bi suma añ bi ak suma reer bi nga koy jël si nga koy yóbbu ci iyaan ngeen di bokk ñetti fan la fi am ak ndékki lee yëpp nag ngeen koy bokk sëriñ Cheikh ngi nii sëriñ Saliou ngi nii sëriñ Cheikh lii la ma sëriñ Saliou defal te mu wër ma ne lim ma defal man xamul sama day nu mu tudd xamul sama bàyyi nu mu tudd yàllay kese la xam mooy yàllay kese sëriñ Saliou Cheikh Saliou nafaana allahu bi barakaatu te lim ma defal kenn ku ne jàpp nga ne defal kenn bu ma waxee léegi kenn ku ne da nga xalaat lam la defal te waxuloo ko nga ne mag ak moom kon boobu maa ngi leen di ndokkale ci waxtaan wu tedd wii ak ci sujet bi ngeen jël muy tawxiid kenn jëlul sujet bu ëpp bi wala bu ni mel ci waxtaanee ko ay jullit yàlla tawfiq rek la soxla yàlla daal المتر- هو المتربع على عرشه وهو الفعال لما يريد وهو ال- وهو الضامن لارتفاع إسلامه وهو الضامن لاتحاد عباده كن من دي جنب جابنا أنا يلا ما ينمشي بسكي فيه ci weeru koor wii yàlla may na fi loo xam ne yéeme na xam naa nag soo wutuwul bokk na te la ko waral yàlla xam li ko waral waaye maa ngi wax ne xëy na bokk na ci la ko waral bëgg gi ngeen bëgg xaadimul Moustapha gëm gi ngeen gëm xaadimul Moustapha te ku am jom gëm ko wóolu gi ngeen wóolu xaadimul Moustapha ku am jom wóolu ko bu la waxul sax defu la jàngalu la nga xëy bés bés rek daal di ne daal di ne cëpp ci Touba gis li fi xew loola doy na wax sëkk ak li ñu fiy xewal xam naa damaa xaw a xiir su bokkoon ne ñemee naa damay continuer rek ba dog jot waaye rek dama bëgg jukki tuuti tuuti rek ci li ma xam ne neex na ma lool maa ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla na leen neex ren yàlla du ma daf maa boole fii boole gu wóor te wér gu sax dàkk at mu jot booba jëmat na juróom benni at may def waxtaan ci diggante maam Maara Mbàkke ak maam Masamba Caam juróomi at yi nag ma koy defee fuuta waaye pour wan la na doomu aadama fi ngay xamee màggaayam ak matam akuk matam akuk mbaaxam ak wóolu yàllaam mooy nga gis ko muy def loo xam ne mënoon na ko bañu def te kenn du wax kenn sax du xalaat ni kii ndax ndax kii waroon na ko mën a def bi ma yëglee jotaay boobu Sëriñ Muntaka Bachiru Xaadimul Moustapha ma wax ko ko ni ma ko doon waxee wax ko sëriñ bi itam waaye naka lañ naan la ñu def dañu lebal ñaar ñu tudd Muntaxa Muntaxa Mbakke ak Muntaxa Abdurahman waaw mu yebal leen ñuy daw fileeg fileeg fileeg foofu may wax sept cent trente cinq kilomètres ñu ñëw Fuuta gépp daje fa ñu waxtaanee fa l'islam boo xam ne yow muy jullit boo fekkee ci xool da nga ci jëlee taar boo xam ne da nga naan bii taar de musuma koo gis fenn ndax jëf ak jëfin dana rafet rafetaay koo xam ne amul lenn luy mel ni ci ñoom ci lu àndul ak takalluf ma koy wax ci seen kanam ndax ñaari ñii kat ñaari ñaari ñaari kat kat la leen sëriñ bi yebal ñu ñëw waaye wax dañu fa wax ci biir fuuta ak tukulóor yi ak borom xam-xam yi melokaan bu ñu fa mel melokaan bi nag du ma ko wax dama koy jéllale ndax kon damaa bañ a rus aslëf wala sëñ Muntaxa ma wax rek damaa bañ a rus ndax dafa am loo xam ne ku ko ku ko ku ku ñu mel bu ñu xamul fa nga jógee rek da ngay jaaxal nit ñi dafa def ci tay bu dañoo def ci tay bu loo xam ne lu yéeme adduna sëpp ngi toog ma àgg ci rek te de fee boo naa rus adduna sëpp ngi toog xam ngeen jamono bu ñu toogee rëj rëj ji rëj rëj ji timis timis ji jot na bay bëgg a paase man maa jiite affaire yi sëriñ si nag ñu nga fa man ab taalibe laa bu ñu wax ne naa ko jiite ma jiite moo bëgg nag ma daal dina bokk yi ah yéen kat damaa ragal ne suñu jógee di julli mbooloo mi dafay faf tas ndax ñu bëri bu ñu jullee pare dañuy rocceeku ma xam nag timis ci xaw naa yaatu te it xam naa léegi ñu pare ma bëggoon rek ngeen muñ bee wax ci daanu fekk timis ji du paas ñu julli ma ma bëgg continuer kenn ci ñoom ni ñoo ket kenn ci ñi may wax léegi ne ñoo ket ña ca des topp ko ñu wuti jàkk ja ñu wuti jàkk ja lan laa war a wax man kat ñëpp man la ñëpp a doon déglu te it maa wax dafa mel ni sax man maa fa doon sëriñ ko ñi jóg ne ñoo ket wuti jama jàkk ja la ma ca teg ma ne gis ngeen ko de gis ngeen ko de lu baax lu ne am na lu ko gën a baax ñii de li ñu def li ma wax ak li ñu def li ñu def moo gën a baax li ma wax nii la ñu def ci Fuuta adduna yëpp a ngi koy teewe borom xam-xam yëpp a ngi koy teewe ma ne lii danaa ko waxaat danaa ko waxaat de su ma ko mënul wax ci at Sëriñ Bachir yi fu ma fu ma jot ci Tuubaa danaa ko fa waxe maa ngi ciy sant yàlla lool di sant borom bi lool di sant lool li ma teewe waaye mun taxaw ma leen yebal ci turu Sëriñ Sidi Moxtaar ba Fuuta def fa loo xam ne kenn defu ko fa ci xam-xam ci yar ak ci diine li ma leen wax léegi ak ci diine bi ñu ko defee ba nopp ba léegi moom la ñuy wax ba léegi moom la ñuy wax te wóor ni ma ne nett yi wuñu leen ko yéen ndax seen sutura man tax tuuti ma bañ koo nett ndax bëgguma woon ku ma jàppee ne noonu la nuyu naa la sëñ Baye Diop parafan kon bokk yi ngeen jéggal ma lool maa ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen seetal ne sëñ Mountakha Bachir ah li réew mi xam ci moom mooy bëgg yàlla mooy gëm diine mooy wóolu yàlla waaye itam nag waaye itam nag bëgg a teg tànkam rekk nag ci fi ko xaadimul Moustapha tegoon lii de lañu xam ci moom ñun nit noo daan wax baayam sëñ Bachir foofu laay teerale nun waa Fuuta nun tugalóor yi ba léegi fu ñu gisee portele wala fu ñu waxee turam bañ dégg ko dañaan sëriñu tooroodu bango ndax dafa niiru sëriñu tooroodu lool sëriñu tooroodu yi bu ngeen leen xamul ku ci gis ku ci gis sëñ Bachir rek borom minanul baatil xadim ku ko ci gis rek mooy sëriñu tooroodu sëriñu tooroodu nag mooy lan mooy koo xam ne dafa jub jubal jikkoom ak jëfam niroo ak suro ko rasul ni ko yàlla bëggee ak ni ko yàlla ni ko yàlla santaane ak ni ko Muhammad daan defee jikkoom ak jëfam noonee la mel moo tax moom njiboot ji de njibootu Sëriñ Tuubaa nag daanaka moom daal peri jamaa lañu boo ci jël nga foog ne moo benn weex moroom ma ci dof rek mooy nga fekk mu mu yore benn peri jamaa di wax ne bii peri benn benn melul ni moom boo fàttee ne yeneen peri jamaa ngi fi rek kon rek xel dina dal ndax da nga xam ne yeneen peri jamaa yi ni moom la ñu mel noo ngi gërëm noo ngi sant noo ngi sant ci borom bi nu may lii te fexewuñ ko wutuñu ko waaye attanu koo bëgg attanu koo bëgg kër sëñ kër sëñ Bachiru di xa- di doomu xaadimul Moustapha ci jëfam ak jëfinam ci diini ji ak ci xeet bi ak ci umma islamique ba gënuñu lool fu mu ne nu jóge fa walillahi alhamdu wa shukru wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf Cheikh Mourchid Ahmadou Ayane Thiam kàddu yi rafet na jot na yow ci sa bopp it feeñaale nga ci biir kàddu yi ndax olof nee na ku wax feeñ te li feeñ ci yow nu déggee ko ci yow rek mooy nit ku baax nga ku bëgg lu baax ak fu lu baax baaxe nit ku ñàkk ci ñaan nga ndax sëñ Sidi Moxtaar mii la woo tey bëgg nga jullee si ak moom ajuma lu baax li nekk ci yow ak liggéey bi ngay liggéeyal lislaam rek loolu lépp moo waral loolu kon ñu ngi lay sant di la gërëm di ñaan yàlla yàggal la fi di ñaan yàlla itam liggéey bi ngay liggéeyal lislaam heure bu nekk nga am ci ndam sa liggéey kenn umpalewu ko ci réew mi bu yàgg lañ la xamoon nii nga wax ak sëñ Muntaxa ñoom ak fi nga jaar si yépp ñun ñii noonu lañ la xamee woon ci wet Serigne Cheikh Gaynde Fatma nga jaxasoo ak moom lool ba nuy gone kon xam nañ la bu baax a baax mosoo jóg ci lii kon ñu ngi lay sant di la gërëm kon bala may jox sëriñ Ibrahima sëriñ Khalil Mbacke ci tuuru njabootu sëriñ Saliou damay jox rek inspecteur sëñ Mountakha Diatara mu sëñ Mountakha dégg nga sëriñ Bassirou ni mu waxeek nun ci tawxiid ak ni sëriñ bi jiitale woon tawxiid ci lépp ak sëriñ Touba ci boppam moom itam ni mu dundoon ni mu doon dunde tawxiid kon loolu bëgg nañ nga tënkal nu ci rek ay kàddu yu yu gàtt leneen li may dolli rek nga xam ne moom jàppan naa ko ci sama xel mooy sëriñ bii li mu wax sëñ Ayaan Caam li mu wax ci ñoo ñi nga xam ne nii sëriñ bi daf leen faa yebal waxtu jot rek déggatuñ lenn lu dul julli lenn luñ defan lu dul loola luñ defan lu dul loola rek daal di juyoog seen maam sëriñ Touba kon loolee ñu def rek day lañ war a day dafa doon lañ war a def képp yem ci leen sëñ Touba jàngal dong lañ def yem ci sëriñ bi bi muy dem ci géej gi dem ba waxtu wi jot ñu di ko tas tasal ci ci gaal gi ba danoru yi nar a jàll ba muy def kes derem bi di ko lal ci géej gi xamutoon ne bu demee dafa dana fa des wala du fa des dara ñoru ko ci li ko ci ñor mooy jaamam yàlla la boo xam ne ne yàlla sant na ko mu def lii ci waxtu wi na jóg rek def ko xam ne ne géej gi moom yàllaa ko bind moom ci boppam yàllaa ko bind li ko yàlla sant na ko def ba mu ne kes derem boobu ni ko tegg ci géej gi la suñ borom sant jibril ni ko bu sujjootee te jëwum bi taxut suufu Tuubaa yow danaa la génn ci malawul axla sëriñ Tuubaa génn julli ba noppi delluwaat ci biir gaal bi tubaab yi ni ko yow mi yaa gëm waaye yaa am fit waaye yaa am ngor gëm gi mooy yàlla nii nga gëm ba nga xam ne nii lu mu wax ak yow tey ba léegi mën na caa génn te te yàlla moom nekk ci dëggam nga gëm ko ba tax nga jël sa der bii kon gëm ci yow la yem waaye yaa amul fit ndax géej gi nga xam ne wan rek lay liggéey nga lal ci sa der bu woyof bii di ci dem sa xamoo sa bakkan bi dana ci desam ndéet ndax diggante bi yàlla sax mën na laa war ci li mu waxam noonu lañ ko jëfandikoo diggante bi yàlla li mu digge woon ak yow sax mën na koo war xam nga tubaab bi loolu la ñuy wax seen wax baaxut waaye loolu nga gëm ci yàlla sa borom boobu ba lal sa der bi ci géej kon gëm ci yow la yem ni nga amee ngor mooy ka la dimbali ba nga lal sa der bii ci géej gii ba julli ba sëlmal géej gi ci boppam wanu la sun gaal gii di daw raw la kon xam nga ne am ngor moo la tax a dellu si ci sun gaal gi waaye aman ngay fexey dellu fan la jële woon sëñ Tuubaa sant ci yàlla sant Moustapha ni ko ko uusu ko tasqini biha sa busharatin wali xutta faydan axjalal bahra wal fulka kon ñoom ñii li ñu def li leen sëñ Touba jàngal dong lañ def leneen lu ñu defalul loolu rek wuteeg njàngaleem sëñ Touba jërëjëf sëñ Mountakha
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala alhadi alamin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa ashabihi sawi ridwani wa tamkin mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziyaara di jiital ci ziyaara bi kilifa yu tedd yi nga xam ne ñoo fi teew ci jataay bi te ci kilifa jotaay bi di suñu jiidi Mbacke ibnu Cheikh Mouhamad Cheikh Saliou Mbacke ñu ngi koy nuyu bu baax di jàllale suñu nuyoo ci moom mu jàllale ko ci mbokk yëpp xam naa waxtaan wi takkusaan baa ngi bëgg a ñëw te wax bu bu li ñuy wax suñu Basiru ni mu def teg ci ay wax daf koy xajamal ndax maa xal la wa dal la de maa xal la wa dal la néew na li ko taxoon a jóg leer na te loolu leen loo ca tegati rek day doon wax ju xaw a yàq xam naa li may njëkk a tàmbule rek mooy maanaam li mu doon waxtaane ak tudd gi tuddee Serigne Saliou bis bi ak mawdo bi ñu doon waxtaane muy tawxiid xam nga Serigne Bachirou dafa wax ne tawxiid ñaari tawxiid la ko Serigne Touba séddale muy tawxiidu takallum tawxiidu tawxiidul maarif tawxiid bee ay wax la mais tawxiid bi ay jëf la te man li ma jàpp te gëm ko lool nag mooy sëriñ tubaa njabootam bi moom am na ci ñoo xam ne ay tawxiid yuy dox lañu woon tawxiid buy wax ak buy dox ñoom nag tawxiid buy dox lañu woon te jàpp naa ne sëriñ Saliou ñi gën a jëmmal tawxiid boobu ci la bokk kon buñ ko tuddee bis bi ñu ciy waxtaane loolu ndax moom ku ko mosaan gis rek gis tawxiid da ngay dégg tawxiid mais boo ko gisee mu wax wala nga gis ko sax te waxut jëmm jaag meloowaag yooyu rek ñoom nga daal di jàng tawxiid loolu kon wane na ne kon tuddee gi ñu ko tuddee bis bi nekk na lu dëppoo lool lool xaw ma ñu ko def loolu lañ seetlu ba def ko wala dafa am sotfa bu ci am waaye loolu moom lu lu lu lu wér a wér la kon ñu ngi ciy dokkee ñoo ngi leen ci dokkee bu baax a baax bi ci des mooy Maodo bi ñu doon waxtaanee solo bi bi bi bi ci sëriñ bi wax doy na sëkk mooy ahamiya bi nga xam ne moom la tawfiq am waaye man dama ci yokk beneen boo xam ne moo mbooloo bi xëy na mooy gën a tax ñu xam solo bi tawxiid am ñu di ko wax aqida buñ gisee wuute yi am ci adduna bi jullit yi nekk ay jullit waaye wuute am ay tayaaraat wala ay jublukaay yu bari am ñenn ñu nekk am fuñ jublu te ñëpp nekk ay jullit sabab ba lépp la ca ëpp mi ngi dellu ci wuute gi ñu wuute ci nuñ gisee tawxiid wuute gi ñu wuute ci nuñ gisee tawxiid kii na tawxiid lii la kii na tawxiid lii la kii na tawxiid lii la kii na tawxiid lii la kenn ku tey sa gisin daal di jur saw defin sa gisin ci tawxiid daal di jur saw defin wu la wóote la ak keneen ku gisut na nga gise loolu moo indi waroo bi nga gis ci àdduna bi yépp nga dégg ñu naan salafit yaag wahabit yaag suufiya yaag nangam ak nangam wuute yooyu yépp li ko lal mooy tawxiid ak aqida wuute gi ñu ci wuute rek moo lal loolu lépp kon loolu dafa mat a xam te buñ ko xamee ba noppi nag ñu xam ñun bi ñu am ak ki ñu am ban la am Sëñ Tuubaa mi ñu am moom tawhid yooyu wuute bu mu ci am ndax ginnaaw moom lañ yaakaar topp ko bëgg koo roy di ko xeñtu kon lépp lu mu nekk war nañoo xam loola ba nuru nuru lu loola te bañ a nuru nuru leneen i keneen loolu defe naa lu am solo la lu mat xamee la ginnaaw tawhid moo wuutale nit ñi aqida moo wuutale nit ñi ndax nañ ko gëmee mooy indi seen wuute ci nañ koy jëfee Sëriñ Tuubaa am na nu mu ko gëmee am na nu mu ko jëfe kon nun war na noo xam loola ba nuru loola ba ñu nuru la def kon loolu am solo la ci Maodo bi tey ñu tànn ko mën koo waxtaane tawhiid nag li tax Maodo bi li ci sëñ jaxati mi wax léegi ne bi waxtaan bi tàmbalee ba bi muy jeex gisul ay laaj ni mu ko daan gisee ci yeneen waxtaan yi ci des man sabab bi maa ngi ko delloo ci tawhiid dafa nekk mujarrad maanaam lu xaw ma abstrait lañ koy wax lu abstrait nga xëy kenn mënu koo làmb daj ko nii booy wax fiq da ngay wax ay wax yoo xam ne nit ñi dañ koy làmb di ko daj ma nga ci fee ma nga ci fee ma nga ci fee ma nga ci fee mais tawxiid day mel ni luy naaw ci jaww ji nii mënu koo làmb daj ko wala nga xool ko gis ko wala nangam yooyu mënu ci am bu ko defee loolu tajarru tajrid boobu ci am wala abstrait boobu ci am wala rafle wu boobu mu rafle mooy tax suñ koy waxtaanee day mel ni ki ki ki ki ci mën a am xam-xam mooy kiy yëg li ñuy wax waaye du kiy dégg li ñuy wax rek nit ki mën nay dégg li ñuy wax mais munu cee am lu mu mën a lu mu mën a wax moom lu dul lim yëg moom tawxiid kon yëg-yëg bi moo ci am solo moo tax séddale gi mu séddale tawxiid da Sëñ Tuubaa da ko séddale tawxiidul takallum ak tawxiidul maarifa man jàpp naa ne ñaari tawxiid yooyu na mu ko misaalee benn ba tasawudu sixaar andi ko benn ba masaalikul jinaan andi ko jot na nag taalibe yi jàng ñaari tawxiid yooyu nag njàng mu leer njàng mu leer nañ ñu ngi koy jàng waaye jàpp naa ne njàng mi ngi koy jàng am na lu ci def ci déggin wi parce que ni mu ko indee nii rek ne tawxiidul takallum mooy tasawudu sixaar ak yee ca aju ak mel ni moom tawxiidul maarifa mooy masaalikul jinaan loolu rek ak ubbiku la goo xam ne lu jara jàngat la ñaari ñaari ñaari misaal yooyu mu ko misaal rek gone yi jàng xam-xam yooyu ñu xam ne ñaar yooyu benn bu ci rek day misaal ab tawxiid ci xeeti tawxiid yooyu loolu benn tàmbale la bu ñuy tàmbale ñoom muy ab ubbiku ngir dem ñu gën a yaatal lan mooy tawxiidul takallum lan mooy tawxiidul maarifa man kon jàpp naa ne jàngaat tawxiid parce que li sëñ bi doon wax léegi am na baat bu mu wax bu am solo muy jaawale kii woote ak li muy woote nun danoo am gimiñ ci sëriñ Tuubaa ndax lu baree bari bu dikkee di woote ci bu ñuy woote ci dara day yéemu ba ñu yéemu ko ba fàtte lañ la muy woote jàpp ci moom xool ko rek moom fàtte la muy woote te rek la am solo te dëgg nag te mbëgg ko mooy ñu seet la muy woote lu mu ndax moom wóotewut ci boppam waaye nag ginnaaw yàlla may na ko li mu ko may ak kiimaan yi mu ko may saa buy woote nit ñi bala ñoo àggee ci li muy woote dañuy far moom mu yéem leen ba ba ñem ci moom te nag bëggewu ko noonu moom ndax wootewul ci boppam daa bëgg ñu xool fa muy woote lu fa nekk fan la ñu jëm foofu kon Sëriñ Tuubaa ci tawxiid la doon woote wootewutoon ñu tawxiidal ko moom moom ci boppam loolu dama koy faral di wax parce que jataay bi ñu toog woote na lépp am na ñoo xam ne sax dañuy wut ay daayira di tuddee Serigne Touba wéetal Serigne Touba baat bi ci tawxiid mën nañ koo bañ donte ne ñoom ña koy wax lañ fas du loola waaye baat bi ci tawxiid mën nañ koo bañ parce que bu ñu wéetal rek yàlla rek koy moom bu ñu wéetal yàlla rek li ñu wéetal képp xëy na lañ jubli ca loola mooy wéetal Serigne Touba ci nit ñi ci nit ñi lañ ci jublu moo tax gis nga li mu doon wax léegi baat yi dafa jar di tànn ndax baat yi mooy wone li ne ci biir nit biir xol yi baat yi li muy woyof woyof ci kaw gi mooy wone li ci biir kon bu ñuy jëfandikoo ay baat nañuy jëfandikoo baat yoo xam ne day ànd ak li sëriñ bi bëgg ci lépp muy teggin ak ta'addub ma allah teggin ànd ak yàlla looy wax lu nekk rek nga ànd ak teggin ànd ak yàlla doonte ne ci sëriñ bi la jëm mais nga ànd ak teggin ne ànd ak mustalahaat yañ miin bu ci nekk mustalax bu nekk ñu féetale ko fu mu féete kon loolu defe naa tawxidul takallum ak tawxidul maarifa muy tasawudu sixaar ak ya mel ni moom ak tasawudul ak ak masaliku ja ngay mel ni moom taalibe yi dañoo am waru garu jàngaat ko ba xam lan mooy tawxid tàmmulee ci seenum njàng waaye gis nañ ne murid yi ni ñuy jàngee tawxid gën naa néew ni ñuy jàngee leneen lu dul tawxid gën naa néew li ñuy jàngee leneen lu dul tawxid ba dégg-dégg yi ñu am ci tawxid tam gën naa néew yeneen dégg-dégg yi ñu am ci yeneen xam-xam yi ci def te loolu wartoon a am ndax sëriñ bi ñu jàng wal xaqu badul abdi bi tawxid la wax wal xaqu badul abdi bi tawxid yow murid bi booy jàng bala ngaa xam dara tàmbuleen ci tawxid ba noppi tàmbuleen ci tawxid ba noppi te bañ koo jàng njàngum wax nii rek damay faral di wax ne sëriñ Tuubaa moom bokk na ci ñi nga xam ne daawul théoriser tawxid di ko waxtaanee ci làmmiñam nii rek ñu di ko dégg parce que xam na ne lu abstrait la mu ne su ko lamb daj ko moom daf ko daan dund maanaam ci ay acte la daan jàngale tawxid waaye daaw ko jàngale ci ay wax ay acte ci la ko daan jàngale te loolu mooy tax ñu mën koo dégg loolu nag tarbiyaa ko mën a andi ci nit nit ki boo ko dul tarbiya doo ko mën a defal lool bu tarbiya amul taqoo am nit ki mënoo ko jàngal tawxid ci ay acte yoo xam ne da nga koy def comme ni ko Sëriñ Tuubaa daan jàngalee ci ay acte yëngutoom yëpp xarakaat ak sakanaat ak lépp luy jàngale tawxid la war soo nuyoo sax bu lay fay da lay jàngal tawxid asalaamaaleykum waaleykum salaam mbaa jàmm ngeen ñu ne jàmm rek xam ngeen luy jàmma ñu ne déedéet mu ne jàmm mooy def li la yàlla digal bàyyi leen la tere gis nga wax ya waxtaan yëpp yëpp noonu lay demee amut Sëriñ Tuubaa kenn du toog ne la nettali la lu Sëriñ Tuubaa masa wax ci jataay boo xam ne waxtaanu adduna la amut jàmmante sax bu ko def maanaam jàmmante boobu li ko indi da doon jàngale da doon jàngale moo indi jàmmante bi waaye jàmmante boobu sax na mbaa jàmm ngeen du ko wax waaye boo waxee mbaa jàmm ngeen da leen a bëgg jàngal te jàngale bi mu bëgg ko tàmbulee ci jàmmante mbaa jàmm ngeen jàmm rek xam ngeen luy jàmm ñu ne déedéet jàmm mooy def li la yàlla digal bàyyi la mel fekk ndax na kon Sëriñ Tuubaa noonu la doon jàngalee tawxiid di ko jàngale ci ay acte waaye du ko jàngale ci ay waxi kese ñun nag léegi dafa mel ne dañoo bëgg safaan mbir mi di jàngale tawxiid ci ay wax waaye duñ ko jàngale ci ay jëf te tant que looloo ngi am ni jotaay bii mel képp lay mel mooy ñu waxtaan ci tawxiid ba noppi mel ni ki doon wax waxutum nun ndax kon danoo amut yëg-yëg bi danoo am tawxiidul maarifa boobu ndax loolu moom lan amut wala dañ koo xamut donc tawxiidul maarifa it lu lu ñuy yëg la waaye yëg-yëg bu nekk day jiitu xam-xam xam-xam da koy jiitu yëg-yëg bu nekk xam-xam da koy jiitu soo xamul luy tawxiidul maarifa pour nga yëg ko day jafe ci yow kon man mbokk yi daal jàpp naa ne mawdo bii tey liñ daan soxla ci mawdo yi ñu daan waxtaanee yëpp mooy dañ daan wax ne mawdo yi ñuy waxtaanee fii andi wuñ ko fi di ko waxtaanee ngir leeral ko fi ba mu leer nañ ñi ñëpp yóbbaale ko mu leer mais dañ fiy andi mawdo boo xam ne dañ koy ubbi soññ ci nit ñi cuq leen ci bàyyi leen ñu dem wëri ko waxtaan yëpp loolu ko waral luñ fi ubbi rek suñ bisiru li mu waxtaan fii ci tawhid xam nga ne lu gàtt la ci tawhid waaye lim def moom la borom xam-xam di def mooy day ubbi ba xel yi am lu ñu xalaat nag dem wuti ko ba kenn ku nekk jàpp ne man kat lii manqué na ma li ma manqué naa dem wuti ko ndax am na fu mu am boo ko wutee da nga ko fekk kon daal ñun ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant waa académie bi nga xam ne ñoo taxawal lu mel nii ndax li ci am solo mooy mbir bu jógee fa mu war a jógee day mel na mu war a mel parce que wax naa ko ay jotaay yu bari ne leen bu ñuy tudd xam-xam ci yoonu murit bu ñu tuddee ko Sëriñ Basiru rek day mel ni ñoo moom xam-xam ndax day mel ni Sëriñ Basiru moo moom xam-xam te doon Sëriñ Tuubaa yëpp am xam-xam waaye ñoom kenn ku nekk yàlla dalaa jagale loo xam ne tey bu ñu newoon liggéey ak bayat yar yar ay dongoog dang ñu ne Sëriñ Saaliw la ñuy wax te ñeneen da ngay yar ñeneen ñeneen da ngay bay bay waaye bu ñu nee xam-xam it ñu daal ne Sëriñ Basiru daal ne mi nenul baaxal xarit kon jataay yu mel nii di amee ci jataayam di amee ci jàkkaam di amee ci njabootam day nekk loo xam ne dana wuyu aw turam lool kon ñu ngi leen ci soññ bu baax te di leen ci gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf sëñ Mountakha kon ñu ngi sant bu baax di gërëm delluwaat di sant mbokk yépp di sant bu baax nag waa presse bi sëriñ bi nee na naa leen jottali ak cantam ci yéen ndax fu mel ne al istiqaama point com moom fi mu ne nii sax moom da koy def direct ak pour lu mel ni académie minan point org mooy site bi nga xam ne nii académie bi moo ko moom ak islam télé point com moom itam Serigne Cheikh Fatma mu Serigne Moustapha Bachir moo ko moom di sant it rajo yi nga xam ne ñoom itam dañ koy jël jox leen ko ñu diffusé ko ay yooni yoon ku mel ni diisoo te sëñ Mortala Fall nekk ca bopp ba ku mel ni Touba Mbacke RTS ku mel ni Al Azhar Touba Média ak rajo yi nga xam ne ñu ngi koy diffusé yépp sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant di sant seen taxawaay ngeen xam ne itam programme bi ñaari ajjuma yi des ajjuma bii ñëw ki ñuy defal waxtaan wi mooy sëriñ Saliou Salaam sëñ Muntaxa Jatara mii lay teggool ca waxtaan wa li ñuy waxtaan ak nun mooy al muridiyatu wa taxaddiyatul marxalatil muhaashara maanaam ak murid ak jafe-jafe yi nga xam ne nii am na ci sunu jamono ji su ko defee beneen ajjuma bi ci des itam sëriñ bi nee na mi ngi leen koy fàttali na ko ñëpp teewee mooy bis boobu nga xam ne ci la ñuy joxe jaa'isatu Cheikh Mouhamadul Bachir xam ngeen ne dafa am benn prix bu sëriñ Bachir boo xam ne nii day ànd ak diplôme d'honneur boo xam ne nii sëriñ Muntaxa mu tedd mi moo koy signé ñu jagleel ko ay nit yu liggéey liggéey bu rëy ci lislaam comme na ngeen ko xame woon ci at yi passé xam ngeen ne daaw am na buñ ci joxoon sëñ Cheikh Mouhamadul Mourtada ibn Cheikhul Khadim ci fi mu jaar ci wàllu jàngale am na buñ ci joxoon sëriñ Abibu Mbàkke am na buñ ci joxoon sëriñ Mod dem ca njaareem waaye nit ñi nga xam ne dañoo am lu baax ñoom itam bëgg a dimbali bëgg a dimbali xam-xam ak lislaam ci seen doole xam ngeen ne am na buñ ci joxoon Cheikh Sey bu Touba Gaz xam ngeen ne am na buñ joxoon itam Alaaji Mandiaye Jong xam ngeen ne Serigne Idrissa Gueye ca Thiès yal na ko yàlla yërëm moom itam jëf ju réy ji nga xam ne jëf na ko fële ca daaray Kokki taxan nañu jox ko prix boobu nga xam ne kon académie bi li muy yëg mooy waaw ah waaw Alaaji Maxari Gueye waaw li muy yëg rek mooy képp fu waay defee lu baax ci réew mi rek mel na ni ñii nga ko defal mel na ni fii nga ko defal kon bu loolu jàllee dañuy daal di jox rek sëriñ Xalil Mbàkke mu soxna Moominatu mu Seex Saaliw mu sëriñ Tuubaa kon moom mooy jottali kàddu gi ci turu kilifaam gi tedd bu tedd gi ci wetam di sëriñ Jiili tam teewal fi sëriñ Cheikh ak sëriñ Moustapha ak mboolem njabootu sëriñ Saaliw
bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi allazina shahadu din mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñoo ngi leen di nuyu ci turu sëriñ Abdul Xaadir mu sëriñ Saalix maag mbooleem ñi nga xam ne ñoom la àndal ci ay jarbaatam ngir teewe ci jataay bii ànd kook sëriñ Cheikh mi nga xam ne moo ko taxawal ak mbokkam yu baax yi mu àndal kon sëriñ Cheikh sëriñ Abdul Xaadir nee na mi ngi lay nuyu lu bari di la jottali ak nuyoo ci sëriñ Muhammadul Muntaxa di ko siyaar ci weeru koor yi di ñaan moom ci boppam it ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom la àndal sëriñ Abdul Hakim yàlla yokk ay laaram ci albarsaq al muhammad yi nee na mi ngi bëgg lool ci tudd gi nga tuddee sëriñ Saalix bis bii tombeeg itam mawdon bi nga xam ne mooy wéetal yàlla di ko suñ Muntaxa Jatara waxe léegi nga xam ne day mel ni dëppoo na loolu ak moom ndax li ëpp ci ay waxam suñ ko daan seetlu wéetal yàlla moo ci daan gën a not bokk na ci li mu daan wax rek yàlla ku ko fàtte ak lawetam moo tax di waxit ne yàlla ku mu fàttaliku faaw nga fàttaliku ko yaakaar naa loolu ci tawhid tomb yu xóot a xóot la kon loolu mu ngi ciy bég bu baax di fedd li itam alaaxa bi nga xam ne moo aman diggante sëriñ Basiiru ak sëriñ Saalix di alaaxa boo xam ne ak mbokk laytaay na ko waaye pëstéef laytaay na ko waaye xam-xamit laytaay na ko loolu ñu ngi koy feddali bu baax di loo xam ne yu bari firndeel na ko ndax bu dee alaaxa bi nga xam ne mooy mbokk gi moo ko laytaay moom sëriñ Saalimu ci doomam yi gën a magee bokk na ci ñi ci gën a magee muy sëñ ba sëñ Basiiru moom la ko tuddee kon ki mu ko tuddee ci doomam yi yi mag la bokk kon teel na ko tudde doom te loolu liy firndeel relation bu rafet ci ak mbokk ak xaritoo loolee bokk na ci liñ ko njëkk a firndeele loolu firndeele na ko ko muy tudde na ko doom jox ko ko muy sëñ Basiiru fii la yaroo ci kippaar gi mi loolu kon relation la boo xam ne bu yàgg la loole itam moom la doxal ci njaboot gi nga xam ne moom la sëriñ Basiiru bàyyi ñoom ñëpp daf leen daan xoole sëriñ Basiiru jàppee leen ni mu jàppe woon sëriñ Basiiru loole bi ci firnde man mii bi ma tolloo ci jàng sëriñ Muntaxa la ma jébbal fii laa jànge Daaru Minam Saalum ak fii ci këram loole it bi may féetaleeg moom xamal na ma ne ma maag moom duñu ñaar benn lañ wax ma it ne ma soo demee nungul ko loo xam ne kenn nungul ko koon soo fa jógee barke bu rëy dana la fa toppe loolu nag ak fonkeel mënu koo weesu te it booba xaj na ma toll woon ci di jàngi waaye gëm naa ne ñoom ñii itam bu fekkonte la ne nit ku amul fu mu leen féetee ba noppi foofu la leen di yóbbu ndax liy firnde ji mooy ginnaaw bi ku ñu ko jox ci ay doomi kilifa wala ku sa alxuraan àgg indi na leen foofu daaru minam sàllu kon loolu mooy li liy firndeel xam-xam bi nga xam ne moom la moo leen boole woon ñoom ñaar te moom it mu di ko xeeñtu ci njabootam jii nii ba loolee di lu lu lu mu doxal ci ñoom ñoom ñëpp kon nag loolu sëñ jili ne na mi ngi ci bëgg di ci sant bu baax di ñaanal yow suñu seex yàlla defal la tawféex ci li ngay def rafetlu na ko lool ndax su fekkee loolu mi ngi feddali diggante ñaari wayjur yi waaye itam feddalee ko ci waar wi nga xam ne ñoom dañ ko bokkoon muy bokk bëgg bokk di ci yëngu nga woowaat ko ci waar woowu muy muy muy muy lu leen lënkalewaat ñoom ñaar nee na loolu mi ngi ci sant bu baax di la yëbban ci ay nuyoo ci sëriñ bi ak ñaanal ko yàlla yàggal ko fi lool te itam di di ko siyaare ci koor gi di sant bu baax daal wa axiru da'waana an alhamdulillahi rabbil alamin
jërëjëf sëñ Xalil waa ji Mbacke rafet na fekk lu waat nga mboolem lu ñu waxoon fii ci diggante Serigne Bassirou ak Cheikh Salih sa jotaay ak jébbal guñ la jébbal sëñ Muntaxa mu yar la jàngal la loolu fedli fedli nga ko ku dégg sa wax itam xam ne li ma doon wax rek ni nga nii nga mel noonu rek nga war a mel ndax bu leen fàtte ni sëriñ xalil mii doomu sëriñ Moustapha Absa la moom sëriñ Muudu Awa Balla mu maam Ceerno te maam Ceerno pour nga natt maam Ceerno rek doy na ci moo yar sëñ Muudu Moustapha ak sëñ Fallu jàngal leen ba sëñ Fallu daan wax ne sunu baay Ceerno daf noo jàngal ban ni arr mu yar nu ban ni nërr mu yeenu banni jaar xam ngeen ne sëñ tubaa université yi mu sampoon ba ca njëkkan moom sëñ tubaa ci boppam moo doonoon recteur bi moo doonoon amidu kulliya bi moo ko yoroon waaye deuxième université ba maam Thierno moom la ko joxoon ñu mel ni ñooñu nag ñoo ca génn sëñ Modou Moustapha sëñ Fallou ak la la ca topp kon yow warkal la yow itam li ñu doon wax fii rek ni nga war a mel doo nga mel yem ci
loo defal lu dul lii rek jaaxal na jërëjëf Mbàkke ñu ngi lay sant yow itam sa taxawaay rafet na fu diine jógee nga jóg fu xam-xam jógee nga jóg loolu la la ñëpp xamee bari na ku la xam koo xam ne xamul sax noo tudd ak noo sant mais gis na xam-xam ñor la ba fépp foo xam ne xam-xam ak wéetal yàlla dundal tasawuf ma nga fa rek fu ñu geesoo gis la fa kon jërëjëf sant nañ bu baax kon Serigne Cheikh Khadim dafa mel ni tey kon yow yaay ki nga xam ne tatanawalul kalima niyaabatan an il imam Cheikh Mahamad Abdullah ibnu Cheikh Mahamad Moustapha Bachir mi nga xam ne moom moo jiite lii ginnaaw bu mu bu mu fi wuutoo Serigne Abdul Hakim te mel ni sëñ Modou Ablaye kon sant na la tey nga ñëw jiite jumaa ji jiite waxtaan wi kon nag kàddu gaangoo mbokki taalibe yi gis nga artu bu rafet bi fi sëriñ Bassirou def gis nga sëñ sëñ sëñ Cheikhouna Abdoul Wadoud gis nga sëriñ Mountakha Diatara ak mboolem kàddu yi fi teew ak mboolem mbokki taalibe yi ni ñu fi teewee kon nag kàddu gaangoo bismillah
alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa sallim assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi am mbégte ci jotal leen nii bu jógee ci sëriñ Muntaxa di suñu kilifa jaar jaar ci sëriñ Mamadou Abdullah ñu nuyu mbooloo mi waaye nag ñu di ko tàmbalee teg ko ci loxol suñu kilifa gi fi teew di sëriñ Jili Mbàkke moom Cheikh Saliou ak mbooleem njabootam bi mu àndal teewal teewal fi waa kër sunu maam sëriñ Saalix Mbàkke ñu am mbégte bu baax seen teewaay yi teewe li ngeen teewe jotaay bi nga xam dañ koo jagleel sëriñ Saalix Mbàkke mi nga xam ne kenn mënu koo fay ci liggéey bu rëy bu mu liggéeyal sëriñ Touba. ci njaboot gi yar gi ci defar gi waaye ci dëkk bi ci Tuubaa gi li ngeen ci wax rek mënuma cee dama koy sof ci li ci sëñ Muntaxa ji sa waxoon ak li ci sëñ Xalil wax ci ak ci diggante bu rafet bi bi nga xam ne am na ci biir njabootu sëriñ Tuubaa gépp waaye nag fetliku na lool ci diggante sëriñ Basiiru ak sëriñ Saalix ndax xam ngeen nii mu ni mu demee li sëñ li sëñ li sëñ Xalil wax rek ci tur sëriñ ji li doy na sëkk ñu ngi dinañ ci dellusiwaat waaye ñu ngi am mbégte bu baax di sant bu baax ci waxtaan yi ñi nga xam ne sëñ Bassirou Mbacke nii Abdou Karim Xelkom defal nañu ko muy ci tawxiid muy waxtaan wu am solo wu leer woo xam ne ni ko ñu koy waxee rek ubbi na ay bunt yu bari xamal nañu buñ bëggee gës tawxiid ak ak ñu ko sëriñ bi jàngalee fan la ñuy dellu xamal ñu nañu tawxid boobu ñaar la tawxidul takallum ak tawxidul maarifa kon ubbi nañu ay bunt yoo xam ne mën nañ cee gëstu ba àgg fu ñu ci bëgg a àgg waaye sëriñ Seexuna Abdu Wadoud bu ñëwee moom itam tënkal nañu ko leer xamal ñu nan la ñuy def ba jariñ ci comme ñi fi jaarat ginnaaw bi ba ci sëriñ Muntaxa Yatara ni ñu ko defee kon daal ngeen xam ne ñu ngi am li am nañ dëkk bu baax ci seen teewaay yi dégg nañ ci lool xanaa di ñaan rek yàlla jariñ ñu ci te yaatal njariñ li ba mu àgg fépp ci ñëpp jigéen ñu ko mën a dégg ci barab bi ci dëkk bi ci réew mi waaye ci àdduna bépp ndax ni ndax amoon na yéen it yaakaar naa do dem nañ ci àdduna bépp ndax ñu ngi ci internet bi kon sëriñ bi bu ñu lay nuyu di la siyaare yaa ngi mbool yaa ngi mbooloom mbokk yi ngeen àndal di leen wax rek suñu mbégte seen teewaay ak ñi ngeen defee sëriñ Saliou moom bu ñu ko fàtte mukk dañ koy sant bu baax waaye diggante ma sëriñ Mountakha itam dañ ciy sant dañ ciy sant bu baax a baax duñ fàtte itam lépp li nga xam ne defal na ko sëriñ Mountakha ak cofeel gi amoon ci moom ak ni mu ko jàppe woon ak ni mu ko santoo de ba sëriñ Mountakha moom yàgg naa wax ne sëriñ Saliou moom mooy sama sëriñub xol yàgg nañu ko wax ak lépp dañ am tukki bu ñu àndoon France quatre-vingt-cinq waaye daanaa dégg mu di ko wax te boobu ñoom ñëpp a ngi fi ku ci ne daan wax lam seq ak yow ci waa Kaffrine Touba yi ku ci ne daana wax lu rëy lu mu seq ak moom waaye daana wax naa sëñ Saliou mooy sama sëriñ bu xol kon loolu lu rëy la kon loolu tam ñu ngi koy jàpp bu baax ñu ngi tam ñu koy dox ñu koy jàpp ci yéen kon daal xam naa ne kilifa moom bala ngaa xam ne moo neex rek sa sa kilifa bàyyi la wuñu ndax lii suñu Abdoulaye moo ñu ko moo ko daan def ah moo am solo lool waaye nag bu ko nekku tey jii bëggoon naa lool mu nekkoon fi ba def ko ah kon nag moom yow li ci am solo daal mooy ñu xam ne daal sant nañ bu yëpp loo fàtte itam daal ñu xam ne daal sant naa sant nañ ñun ñëpp ndax damay wax turu mbooloo mi rek turu académie bi waaye turu mbokk yëpp turu mbokk yëpp ndax mënoon na maa jox ku ne mu wax lii ñuy wax mënoon naa ko jox sëñ Moudou Abdoulaye nii moom suñu si asfaal mënoon naa ko jox Serigne Bassirou Mbacke ne moom suñu sama mënoon naa ko jox ku ne ci ñoom mu wax ko kon damay wax seen tur rek mënoon naa ko jox Serigne Mountakha Mbacke mu wax ko ñu ngi sant tam bu baax suñu bàjjo bi nga xam ne ñu ngi nekk nii te am yitte lool ci waxtaan wi soxna Khady Asfaal mi nga xam ne fu mu toll day laaj soxna musli ñoom ñëpp soxna Boussa Diakhaté mi nga xam ne moom day dajale lu mu fu mu toll ci at ñëpp ngir bis yi ñuy def ci koor bi di ko jébbale te sunu maam kon ñu ngeen xam ne daal yéen ñëpp ñu leen di bàyyi xel ñu leen di sant bu baax di leen fàttaliku di leen ñaanal di ñaanal suñu waajur fi jógee bu yàggu bu yàggu rek suñu Abdou Hakim di sàpp ngeen dal di koy ñaanal waaye moo mbooleem ay waajur ñu jiitu ak ay magam yu jiitu lépp lu ma fàtte itam daal ngeen jéggal na ko waaye sant naa ñëpp ñu fi teew ak ñu yéenee teew ak ak ñu koy dégg ëllëg sant na sant naa sëriñ si sant naa taalibe yi sant naa leen yéen borom xam-xam yi ci li ngeen ñu defal lépp sant naa ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy jàppale fu ñu toll xam naa leen jëlsiwaat ci ñoom wasalaamaaleykum wa rahmatulah ngeen xam ne tam suñu gan bii moom itam li mu def rek ci ñun lool ndax ku ne xam na ko moom yàlla da ko defal tawfeex ndax gis nga at yi yëpp ñuy bokk di warandoo julli bi muy lu neex ba ci ren ji nga xam ne àdduna bépp ñoo bokk warandoo xam nga muy lu neex loo xam daal dañu ñaan tam yàlla tawfeexal ñu ne bañ bokk warandoo ndax lii dafa am solo lool ndax ñàkk ñàkk wute gi dama koy faral di wax dañuy jural ñu doy waar ndax da ngay gis ñoo xam ne maanduwul ñu jëwante di mooy bu ko defee di am ak mooy yàlla lu nañu koy waxante te te sax loolu dara ndax yàgg na am ba ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam daana am dëkk bee wari dëkk bee duñu wari waaye nag tawfeex gi ñu yàlla defal bañ warandoo moom yàlla day am am lu baree baree bari te loolu yoon ñu sa tawfeex la ndax ndax ci sëb liggéey liggéey nga ci lu am solo loo xam ne lañu sant baax la ci ñaaral mu yàlla yokk sa sa wér yàlla yokk sa kàttan ngir yàgg koo def te yàlla ñu taw bexe la ñuy bokk di ànd mbooleem jullit yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sant nañu baax jërëjëf sëriñ bi Mbàkke wax ji rafet na jot na kon nag ñu ngi sant ñëpp gërëm ñëpp kon li ñuy def rek mooy sëriñ jiili sëriñ Abdou Khadir mu sëriñ Saliou mu sëriñ Touba nun ñëpp ñu maase taalal ko suñuy loxo mu ñaan bu boobaa nag ñu yeewi ñu yeewee ñu bàyyi di liggéey ndax am na beneen liggéey boo xam ne ni buñ ko jógee ñoom itam dañ ko def ngir dundal weer wi